مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وجل الله مسكني بابات مثل اسمها بجاي خير من ابا وجل الله مسكني بابات مثل اسمها بجاي خير من asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokk yi ñuy seetaan ci Bichri TV ak Touba Monde bi TV ñu ngi leen di ziarewaat bu baax a baax te di leen jaajëfal di siyaar nag euh, Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye noonu la ñuy siyaaree sëriñ euh, Alaaji Tàkko Mbacké ambassadeur Touba ca kanam waaye di siyaar bu baax a baax sëriñ Abibu Laay Mbàkke moom Cheikh Mamadou Fadal waaye di ziar bu baax sëriñ Abdou Lahad Mbàkke sëriñ Abibu di ziar bu baax tam soxna Bintu Mbàkke mi jiite soxna yu Tuubaa ci kanam waaye di ziar bu baax président sëriñ Abdou Fatah Gueye mi nga xam ne moo ne ci bopp liggéey bi euh, ñu am nag mbégte dalal sunu bokk yi nga xam ne ñoom lañu bokkal Tuubaa ci kanam nooru daare ni muy commission euh, sociale de Cheikh Mamadou Mourtada Mbàkke ibnu sëriñ Abdul Fattah moom moo ko jiite ñu dalal ko tey war a waxtaan ak moom ci lu soxal wàllu social waaye ñu am tamit euh, commission relation extérieure ci njiitul sëriñ naa loo nga xam ne moom lañu ñu dénk liggéey boobu waaye ñu am tamit euh, premier vice président muy sëriñ Abo Bousso nga xam ne moo njëkkoon jiite lii di relation extérieure xam naa dinañ ñëw ci euh, Touba ca kanam diaspora bi ndax yomboon na ci njalbeen gi ñu mën ko yaatal ci bitim réew ñu amaat euh, Serigne Mohamed Seck di deuxième vice président njëkkoon na ko nekkit ci eh, njiitul Serigne Abou Bousso moom dinañ ànd ak moom ci yaatal Touba ci kanam ci Amérique dina am réew yoo xam ne xëy na buñ ci ñëwee moom dina ñëw ak ñun ci bi Touba ci kanam di génn euh, amerique yan boor la duggee ak it yan réew la euh, ñu am tamit sëriñ xaadim Thian di président sous commission bu Afrique moom tam mën nañ jàpp ne nekkal fi mbooleem ñeenti continent yëpp moom it dina am kàddu soññiwaat mbokk taalibe yi ci liggéey bu am solo bi mbooleem ñeenti continent yi kon loolu mooy war a nekk tey sunu euh, jotaayu waxtaan ngir ñu mën a tàmbali li nga xam ne moom mooy liggéey bi rek dañuy daal di eh, jox sunu kàddu Serigne Abo Bousso mu nuyoo ak mbokki talibé yi ñu dogu mëna del ci wat jotaay bi wa sëñ alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah. sëñ bay ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la delloo di nuyo suñu mbokk yu tedd yi nga xamne ñom lañ bokkal jotaay bi. Eh, di ma saw bu baax baax ci bis bu mag bi nga xamne ci lañ joge dem. gisal ci suñu nuyo ak suñu xiyaré al khalifatul am Cheikh mohammed al muntaha di ko ñaanal suñu borom yokk ko kattan ak wér. amiin mbooleem képp koo xam ne ni yaa ngi bokk ci jabaru Seexul Bamba Xaadimu Rasuul rawatina. kuy ab taalibe suñu borom motali liggéey bi. di jël ci nuyoo bi ak bi ci wàllu li nga xam ne moom la ñu bokk muy liggéey Touba Ca Kanam xam ne moo waral ñu toog fii. Mhm. sëriñ Abibu mi nga xam ne mooy jëwriñ yi waaye nag di ko teg ci loxol sëriñ tàkkoom Cheikh Amadou Fadal mi xam ne. ku xam na ne ni ñuy pàcc bi ñuy waxtaan mu jëm ci bitim réew. mooy ki nga xam ne moo ci njëkk yaatal ko ci wet gu ne. ci gox gu ne. ñu nuyu suñu Abdoulaye Habib bu muy jëwrinam ak président du Fara Gueye mi nga xam ne moom ngeen dal loolu léegi. di jël nuyoo lépp di ko teg ci sëñ Seexuna Lo mi nga xam ne moom la ñu dénk diaspora bi. mu ànd ko ak sëriñ Modou Seck mi nga xam ne eh, jàmbar loolu ci liggéey bi macha allah. macha allah. di nuyu sëñ Mourtala mi nga xam ne mooy jëwriñ ni social. Mhm. di rafet baax a baax jotaay bi. Mhm. suñ Xaadim Thiam mi nga xam ne moom lañ dénk lu jëm ci con commission continent Afrique di nuyu bu baax a baax suñ Mbaye mi ngi xam ne yaa amee jotaay bi. Mhm. Eh, di lu baax baax. macha allah jërëjëf sëriñaa boobu Bousso ci nuyoo bi matale na. Euh, kon dañuy daal di ñëw rek ci sëriñ Mourtada Mbacke moom sëriñ Abdoul Fattah ñu jiite commission sociale euh, mën nga jël micro boobu sëñ sëñ sëñ Mourtada ginnaaw bu la ziyaare rek euh, nga nuyoo ak bokk yi nga xam ne ñoo ñu seetaan ci Bichri TV ak Touba Monde bi TV ci seen jataay bii nekk seen ñaareelu numéro ci waxtaane lu jëm ci liggéey bii di Touba ci kanam sëñ Mourtada Mbacke moom sëriñ Abdoul Fattah. salaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu ñoo ngi siyaare kilifa yi nag ñu bokkal jotaay bi yëpp waaye di ñaan ci am ñu ñu taxaw suñu borom yàggal ko lool ci ñu bëgg ba ñu yéene liggéey lislaam ñu toog seen xol xartale ñu ànd ko moom di leen nuyu itam ci turu kilifa yi Touba ci kanam yëpp euh, auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi lasi yusalli ala nabi lmuntaqa almusalli salla wa sallama alayhi llahu fi ali wa sahbi wa wala alhal kalaami rashida wa murshida wa fikrati nawir wa xalbi arshida asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi siyaare kilifa yi ñu bokkal jotaay bi yëpp mhm. waaye di ñaanal Cheikh Mamadou Moustapha suñu borom yàggal ko loolu ci defal ko biir bu demu liggéey yéene liggéey ci lislaam ci toolu Cheikh Khadim bi àggale ko ñu ànd mhm. xam ne noonu nga ko mhm. ko ñu ngi siyaar ñoom ñëpp suñu borom gën leen a dëgëral waaye di nuyu ñi nga xam ne ñun moom lañ bokkal jataay bi. Mhm. mën a tudd suñu Seexuna Lo nga xam ne moo jiite eh, commission relation extérieure. Mhm. waaye di nuyu Serigne Xaarim Diagne nga xam ne moo jiite sous commission Afrique. Mhm. ak Serigne Abou Bousso xam ne mooy vice président bu relation extérieure. ak Serigne Mohamed Seck nga xam ne mooy. vice président deuxième vice président ci relation extérieure. waaye di la yow sëñ Mbaye. di jàmbaar loolu ci liggéey bi jiite sous commission programme. Mhm. Euh, di rafetlu jotaay bi. di dégg loolu ci euh, jotaay bi. ak mhm. ñi nga xam ne moom ñu dalal muy Touba Bichri TV. Mhm. di rafetlu seen liggéey ak seen taxawaay. xam naa kàddu yi boole. incha allah euh, na te dëgg yàlla macha xam naa kon dañuy ñëw rek ci. Serigne euh, Mohamed Seck mi deuxième vice-président ñu bàyyi moom tam mu nuyoo ak bokk téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci Bichri TV ak Touba Monde bi TV kon dañuy jëbal kàddu gi rek Serigne Mohamed Seck sëñ Mohamed Seck euh, asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala mbokki jullit yi mbokki taalibe yi moo mm-hmm. ngi leen nuyu bu baax te leen siyaare mm-hmm. defam nuyoo bi di ko teg ci loxol mm-hmm. Cheikh Mouhamadoul mëntaxa te ñaan yàlla yàggal ko fi lool te mu wér te àggale mébét yi mébétu sëriñ bi yëpp ba jofal ko ba tàmbaliwaat yeneen ci barkeb sëriñ Touba di nuyuwaat bu baaxit sëriñ bi nga xamante ne moo nu jiite liggéey bi muy sëriñ Abibullah di ko ñaanal bu baax a baax a baax ci liggéey bii nga xam ne kuma moo moo xalaat bii nga xam ne moo ko dugal ci liggéey bi mhm. muy ñaari téeméer yi yàlla na ci am lu kawe njortam na sëriñ lu amee woon lu kawe njoortam ci jumaa ji amiin na ko jofale woon yàlla na ko jofale noonu ci barkeb sëriñ bi amiin te yàlla taas ñu ci barkeem ñu ànd koog moom noonu waa Touba ci kanam gépp mhm. ba am ci ngërëmal sëñ bi mhm. ndax lépp rek jéem a dàkk ngërëmal sëñ bi lañ ci jublu Euh, di nuyu nag bu baax a baax sëriñ Tàkku Mbakke mhm. moom it ci liggéeyam ci diaspora bi ndax ba Touba ci kanam tàmbale ba léegi fu mu teg tànkam mhm. Touba ci kanam lay jiital mhm. di nuyu bu baax a baax a baax sëriñ laat mi nga xam ne moo moo jiite nag mooy jëwriñi sëriñ Abibu Mbakke te ab taxawaayam roy lool ci Touba ci kanam ah, moom it yàlla na ko yàlla yàlla nañu yàlla boole dimbale daal ba fañ jëm ñu àgg fa nuyoo bi it duñ ci fàtte nag suñu kilifa ci diaspora bi muy sëriñ Seexuna Lo mhm. ci disponi disponibilité bi mu am mhm. ci liggéey bi nga xam ne amu ci heure amu ci waxtu amu ci naaj amu ci sedd na amu ci tàng na mhm. fu ne ma nga fa ba ci ren jii rek États-Unis gi demoon am na tànk yu yaatu yoo xam ne dox na ko fa ca dara warut lenn fépp ko ca lu dul bëgg rek liggéey bi sot liggéey bi tegu ci yoon. macha allah di nuyu nag bu baax a baax sëriñ Abou Bousso mi nga xamante ne ni moom it jiitu yàggoon na ñoo ko topp ñoo ko tàmbali woon. Hmm. tàmbalee ndoo woon ba mu agsi fii ba mu ba jofal ko ci loxo loxol sëriñ seexu naa. ca it dara yàquwu ci macha waaye fañ ko defa jofale it foofu la sëñ bi tàmbalee. Hmm. am ci tànk yu am solo. Hmm. di nuyu yit bu baax Cheikh Mouhamadou Mourtada mii nga xam ne nii social. Euh, ci ci Touba ci kanam jamono yi ñu toll. Mm-hmm. ñëpp ñëpp ñëpp maase nañ xam ne àgg na foo xam ne ñun ñi kenn foogu ko fa woon. mu yóbbu ko fa kon loolu it war nañ ko cee sant. ci pëstéefam ak njàmbaaram ak bëgg lu baaxam. Mm-hmm. Euh, ca mbiram yëpp noonu la foofu la foofu ci foofu la ko teg mhm. kon ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal yàlla sàmm ko moom itam may ko xéewal ba lam ca bëgg mu am ca lu ko kawe waaye fàttewuñ nag suñ mbokkum bopp mi mhm. nga xam ne ni jamono ba nga xamee Touba ci kanam tàmbali ba léegi mhm. muy sëñ Xaadim Caan ah, pëstéefam ak i tànkam musta arrière jamono bu ne mi ngi liggéey mi ngi góorgóorlu te loolu ku ko laaj waa sapeur pompier yi ci dëkk bi yaakaar naa dañ la wax ne la dëgg la. dëgg la ku ko laaj yenn ci yeneen yoo xam ne jóge na woon bitim réew. Mhm. waroon a jaar ci douane bi. Mhm. dana la wax ne noonu la. ñu doog a ñëw nag ca dëkk ba mu dëkk taxawaay ba mu fa taxaw. Mhm. ba luqar ci ñu fa benn kilifa gu ñuy wax sëñ mbayten xamuñu woon fu mu nekk moo ko luqar ci andil na ko. <laughs> te mel ne kooka mënul woon a ñàkk ci liggéey bi. ndax yaakaar nañ ne bu amul woon moom. dana doy waar te loolu sëñ Abou Bousso xam ne ci dara mhm. moom mi jiite woon diaspora bi kon sëñ bay loolu delloo nañ la ko kon ñu ngi lay nuyu baax di la sant mhm. di la gërëm mhm. di la ñaanal yàlla sàmm la te taxaw la te li nga bëgg ci liggéey bi nga am ci lu kawe sa ngor comme niñ ko niñ koy koy yéene waa Touba ca kanam gépp kon ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp fas yéene dugg ci waxtaan bi jërëjëf sëriñ euh, Mohamed Seck mel na ni nuyoo bi eh, gënati naa matale gënati naa rafet niñ koy baaxoo defe rek sëriñ bi moom moo amul tànk ginnaaw mel na ni nuyoo boobu feeñ na ci jotaay bi kon dañuy jébal kàddu bi rek sëriñ Khadim Thian sëriñ Khadim mën nga jël micro boobu euh, moom tamit en tant que président sous commission bu Afrique waaye tey daf fi ñeenti continent yëpp ndax euh, dafa am ay nattangam ñu mu bokkal ñeenti continent yi te moom mu teew kon ci turu diaspora bi maanaam président continent yi mun na nuyoo moom ñu ànd ak sëriñ Khadim Thian sëriñ Khadim salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyu mbooleem kilifa yi nga xam ne nii ñoom lan bokkal jataay bi mhm. di leen siyaare mhm. jataay bu tedd mhm. jataay bu am solo di jiital ci sama nuyoo seen mun taxa xalifa général de Mouride doon kilifa ak mboolem Mouride yëpp yal na ko yàlla yàggal fi te wéral ko di nuyu eh, sëriñ Abibu mm-hmm. moom sëriñ Fàllu eh, ak sëriñ Tàkko magam kilifaam eh, di leen siyaare bu baax di leen ñaanal jàmm ak salaam di nuyu sëriñ Abdoulaat moom sëriñ Abibu jëwrin di nuyu nag sëriñ Abdou Fata mi nga xam ne nii moo fi bàyyi ko léegi ak mboolem ñu àndaloon jataay bu jiitu bii di nuyu nag sëñ na Lo mi nga xam ni mo ñu jité ci walu diaspora bi di ko ak di ko ñaanal di ko ñaanal deur ak mucc di ci tek serigne Abo Bousso mi nga xam ni yalla dogal na euh mo yoron diaspora bi and ko sëñ Modou sek mi yalla dogalat bi sëñ Seexuna ñëwee delloowaat buum ca boy boy ba euh, di nuyu timit serigne Modou sek di ko ñaanal di rafetlu kaddu yi ndax eh, eh, kaddu yu rafet la kaddu yi eh, wax deug yalla kàddu ku ko dégg tamit xam ne kàddu yu deug la di siara nak sama serigne sama xarit sama mbokk ci ci ak mbaxam ci wax deug yalla bëgg liggéey serigne Touba bi te yaatal ko ba nga xamni ni serigne Modou sek wax nako social ag nako na ko deug yalla wax mbaxam ak ak yaatalam ba nopi jëf jëf jo xamni ni jëf ju jëf ju mandu la ju ànd ak jàmm loolu moo ko yóbbu fii ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di jaajëfal seen mbay moom damaa jege ba mënumaa wax ci moom yal na ko yàlla dëgëral rek laa koy wax te musal ko te aar ko te sàmm ko salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum jërëjëf sëriñ euh, Khadim Thian kàddu yi yow tamit macha allah ni nga ko indee xam naa kon ni ñuy def rek mooy dañuy jox nag euh, suñu micro sëriñ Cheikhouna Lo mi nga xam ne mooy président commission relation extérieure nga xam ne moo ne ci bopp tey diaspora bi e doon réew yu takku waaye doon ay continent yu yu takku te wuute kon sëñ naa loolu la ñuy jébal kàddu bi mu nuyoo ak e, bokki téléspectateurs yi ñuy setaan ñu door nag tabbi ci biir waxtaan wi sëñ Seexuna bisimilah. aouzu billah bismillah inna waliyallah سلام عليكم والديار بعيدة وإني أن المسعى إليكم لعاجز وهذا كلامي نائب عن زيارتي وفي عدم الماء التيمم جائز بكي نيلن دي نيو دي لين زيار دي سانت جتائب جتاي ام سولو بي سيرين مبايتن ميغا خامني مو يور بروغرام اك di modéré jataay bi waaye di nuyu suñu bokk yu baax yi ñu fi teewal di ko tàmbalee ci euh, Serigne Mourtada moom Cheikh Abdoul Fattah di kilifa gi jiite social di nuyu sëriñ Abou Boussa euh, Serigne Mohamadou Seck ak sëriñ Khadim Thian te nu bok nek ci biir relation extérieure ñu di ci taxawé taxaway yu ama am solo mhm. di ñaan nak Cheikh Amadou muntaha yalla yagal ko fi lool te mo mhm. mook ñam yi nga xamné ñoy eh, taxaw ak di taxawé Touba ci kanam mhm. di Cheikh Mamadou Habib Cheikh alhadji serigne Tàkko Cheikh abdul Ahad ak eh, Sëriñ fatta gey euh di sant rek di jël nuyo bi diko tek ci loxo sama bokk yi hmm. muy Serigne Abo ni mako ko ak Serigne mohamed Seck hmm. ak Serigne Khadim hmm. ndax ñoom euh, dañ ma jitu ci euh, relation extérieure am na neneen nu mu tuddoon waaye ñoom li ñuy wax ay jambaari fak dekk lañu won ci ndax bobu amugut luñu euh, taxawal ni li kat moy. relation extérieure wala diaspora wala bitim réew wala nu mu tuddoon waaye ñoom fu liggéey bi àgg ñoom ñoo ko fa àggale mhm. ba def ko ba mu doon jëmm nag ñu wala boog mbubb ñu solal ma mbubb mooma kon loolu faaw euh, du ma ñàkk di ko wax macha allah te euh, niñ koy waxee rek euh, Touba ca kanam dafa am lu muy jàngale mhm. te moo di liggéey bi sëriñ Touba la ci ñëpp di eh, sàkku mhm. eh, kenn ku ci nekk fu fi mën a nekk xam nañ ne ku fegg amu ci amul ku diggee te loolu jëmm yii ak doxin wi muy li ko dala ci bopp ba muy diggante Serigne du Fatah ak ña ko njëkkoon a yore. Mhm. ba ci relation extérieure ak ñi ko njëkkoon a yore. Mhm. kenn ku ci nekk fuñ ko jox rek day mel ni foofa la gën a mane. te it day jàppale ka nga xam ne moom lañ ko joxe te mu jiital ko ca bopp ba. loolu doon loo xam ne luñu mëna jàngé ci Touba ci kanam la mhm. ñu di ko wat bu baaxa baax mhm. di wat bokk yépp mhm. di wacc fi kaddu gi ba mu delsiwaat wat inshallah inshallah allah jërëjëf sëriñ cheikh Naaloo ci nuyo bi matale na teyit wax dëgg ma sha allah gën gën na rafetal jotaay bi eh, xamna kon ngir ñu tabbi ci waxtaan bi rek njëkk ñuy dugg ndax xam nga ñi ngi wax ne dañu dalal tay commission relations extérieures Euh, bala ñuy tàbbi rek ñu jaajëfalaat bu baax a baax ku mel ni Serigne Abdou Lahat bokkoon na ci ñi nga xam ne njëkk nañoo na ci liggéey bi di ci yëngatu waaye ku mel ni Serigne Abdoulaye Niang bëgg fàllu moom tamit ñu ngi koy ziar bu baax a baax de passage moom tamit muy ku liggéey bi yitteel mun na ci di doon ci def lu am am solo léegi dañuy ñëw rek ci Serigne euh, Abo buso euh, Serigne Abo ginnaaw boo xamee ne Touba ca kanam juddu na 2016. ñu def ay weer loolu daal di liggéenti li njëkkoon am 2017 hmm, projet 2 millions de mourides bi teew sëriñ Abibulaay Mbàkke moom sëñ Fàllu woote ko ñu tàmbali koo wax ci biir senegal te ku ne xam na ne nit ñi euh, li sëñ Fàllu jumaa a wax démb euh, yàllaa ko may moom muy wax <coughs> mën a wax ci mbooloo li ne ci moom waaye bari na ñuy dunde noonu maanaam gëmatuñu woon lu bari loolu tekkiwul woon nag ne nit ñi maanaam nit ñi woote mujj woote lañ gëmul déedéet dafa am ñu fi njëkk a jaar te lañu doon wax ak seen i jëf wuute ba daanaka léegi liñ mën a gëm bariwul loolu bi tubaa ci kanam di juddu moom moo xew ci àdduna bi ñëpp di ko xalaat euh, ndax yomboon na ñi biir senegal gëm tubaa ci kanam dañuy wax ne loolu laaj la ndax yomboon na génne tubaa ci kanam Sénégal yóbbu ko bitim réew te fekk daayira yi amon nañu kuréel yi amon nañu federation yi amon nañu xamuñu lan moy tuba ci kanam ndax yombon na genné ko senegal man ko saxal ci bitim rew seigne Abou Bousso jërëjëf seigne Bay laaj nga laaj bu am solo bo xamni ni dana jaat léeg nga delu di diko laaj liggey benn bo xamni ni bu am njariñ la bu yomb yakarna suñu borom sakku ndax amul lenn lu baax lu am résultat loo xam ne ni danga ko am ci ci yomb ci noflaay hmm. mooy loolu day tàbbi ci ndax euh, Touba ci kanam tàbbi ci bitim réew ndax yomboon na mën ngaa wax ne man na ngaa wax ne yomboon na mën ngaa wax ne yombut hmm. fi may njëkk mooy yomb gi li ko waral hmm. dañoo tudd léegi ay kilifa yu am solo ci liggéey bi. ci mhm. njiitul alaaji sëriñ takkum sëñ Fallu muy koo xam ne ni bari na réew yoo xam ne liggéey bi dugg na fa ci kàddoom la jaare ak ay loxoom. Mhm. ci diaspora bi fu bëree bëree bëri diggante ah Afrique comme fi lañ nekk. Mhm. Europe Asie Amérique. noonu kilifa gu mag woo defee. Mhm. ci ñi ko yàlla booleel ci comme li tax may wax loolu mooy koo xam-xam ne ku yàlla dimbalee la muy bëri lu muy dem ci at ci àll bi. Mhm. ci ci continent yu wuute. Mhm. waaye bi Touba Ca Kanam tàmbalee moom ci ñuy wax ne kii jiitali wala ki jiitali moom dafa am ëmbal taalibe yi aw yiw. mu àggal leen liggéey bi. waaye ñi ko ñu mel ak ni xamee ci dëggoom. te mosoo woo nit ci boppam ak lu ko jëmee ci boppam fu ñu toll rek nit ñi daal dana woon ci sëñ bi moo tax comme gaaraloon Touba ci kanam rek da ngay sawar a dugg ci Touba ci kanam moo waral suñu tàkku fépp fu mu mën jaar rek bu la leeral Touba ci kanam ñooñu dañu daal di song Touba ci kanam. noonu nga ko waxee ci alaaj sëñ tàkku it. loo koy waxee ci sëñ Moutalaay mi jiitee social. ndax Touba ci kanam bi muy soog a taxaw lu jiitu social mi di taxaw. diaspora bi sëñ Mourtala bi ci ñi ko ngànkoon ci la bokk ci ñi ko porté woon ànd ak moom di ko doxal mhm. xam naa ne ci acteurs yi ko doxal ci la bokk mhm. ndax bëri na fu mu àgg moom it noonu ko waajur mu doon defee noonu lu ko yàlla dimbale moom it waa dem ci àll bi mhm. ci ay continent yi wuute fu mel ne Afrique fu mel ne Europe fu ne dem na fa porté fa du wàcc kanam suñ soxna mii ñu dëkk tey liggéey bi Touba Ca Kanam Turquie doon na fa dox waaye mooy ki fa njëkk àgg hmm. soññee fa Touba ci kanam hmm. kon euh, noonu laa koy waxee ci sëñ Modou Seck yi nga xam ne booba yàlla dogal na moom ñun lañ boolee dénk liggéey bi hmm. bu Touba ci kanam àggee Amérique ci continent bi gannaaw yàlla ci loxoom la jaaree gannaaw bi ñu ko duggee ci way xarale yi dégg ko ci ressources yi waaye moom moo dem jëmbat ko fa xool fa ay nit yoo xam ne nii comme yàgg naa dund Amérique. Mm-hmm. xam na ñi am pas-pas ak ñoo xam ne nii bu leen ko joxee dañ ko yóbbu fu kawe njort. Mm-hmm. gannaaw yàlla moom moo ko porte yóbbu ko fa yóbbu ko fa ñuy wax Arsanti. ci mm-hmm. Amérique latine. yóbbu ko fi ñuy wax Brésil. Euh, man bu yàlla doolee ma jàpp yoon njëkk a génn. Euh, fas yéene jublu ci liggéey bi ñu dénk. ngir jóg yaadal ji ko. sëñ Xaadim Caan mii yàlla dogal ñu dégg ko continent Afrique bi. Mhm. mooy ki njëkk a jël volante. Mhm. ñu ànd man ak moom jógee Sénégal départ Ndakaaru ci otoom. Mhm. dem ba Gàmbi mu dalal ma këram. macha sonn ci yoon wi lool. yóbbu ñu bis boobu mu jël rendez ci ki yàlla dogal mu jiite. Euh, Gambi Gambi. bi mm-hmm. suñ Pape Demba. Mm-hmm. Euh, nuyoo lañu ko mu woote fa waxtaan moo nu ko suñu Modou waxee. Mm-hmm. ci la si jëmm ji teewe ndax sëñ bi mooy def mbir mu nekk ku ci war a bokk fu mu ci war a bokkee rek fa la koy teewale loolu loolu ci yow ci macha allah ñu ne di la defal parenthèse ci bi nga ci teewee. suñ Pape Demba it sant la ci loo xam ne nii. suñ Xaadim Jaan bi mu ci waxee moom. ca saasa yow moom la sëñ Pape Demba ne laa Mbay li jëm ci wàllu nu mu war a yaatoo ci dëkk bi ci réew mi. communication bi. Mhm. bul ci xaar kenn xaaroo ñaan la yaayar poste bi ak yoroo poste bi ca saasa yow da jël matt ga matt bi nga sew laa doxoon ci sayu matt wi matt gi nga xam ne mooy mooy sa wàll ci sayu wa rek fas yéene mu yaatu. Mhm. yàlla loolu ma def garab bi tolloog ayu bis. Mhm. suñu xaarim ci mi saa suñu xëyee mu tal otoom kuy jëwriñ ci dëkk ngay taalibe dem nañ fa mu nuyoo lañu wax ko mbirum Touba ci kanam dañ demee Serekunda ci kër suñu Murtala googee mhm. di ko dem ci port ba allah jor ñu fa nekk mhm. mel na mel du waañ boo xam ne bokk ci war a ji Alaaji Mbay Alaaji Mbay waaw di mhm. jàmbaar loolu macha ak magi taalibe yi nekk ca biir Gàmbi yëpp fan fu nekk taal na oto bi dem fa macha allah loolu tabbe tabbee nga xam ne Gambie mooy réew mi njëkk a recevoir. Touba ci ñuy woowee Touba ci kanam. Mhm. ci koo xam ne nee nañ moom lañ dénkoon liggéey bi jamono yooyu. macha allah. bañ fa jógee liggéey bu mate fa am fa xel mu dal lool allah ndax ñañ fekk ak nañ ñu dalale. Mhm. nañ ubbi ko ak jëmm yi ñu présenté ne ñoo yor liggéey ba. Mhm. dafa dal suñu xel ñun. daal di doxu jàll wàcc Casamance jóge fa dugg boobu mu daat sekk fekk nek fa ak moom présenté ñu ñu ñu fa hmm jamono yee magal Kazu yeb mo ñew mu sakku ci ñun ñu xaar fa magal hmm xam ne foofu lañ ko defé ñun hmm yalla dogal liggey bi comme ni nga ko waxe rek neexut ta dogal ci bop nit ñi mhm. ndax yi fi jaam jaar di jall deug la nit ñi rumeur yi ñuy dégg ak ndax li lu wër la yoy ñu mën rek na magal gi yalla moy occasion bi nga xamne ku mel na yow comme fek na la fi bebo nga tok def ko fi. hmm ndax mbolo bi fi ñew pour ñu amaat ko du yomb. Mhm. lu melne ne bala ko amaat su melne ne suñu suñu fal bo fay ñew wala ma événement magal ko ba hmm yalla dogal magal ko Rajab gi ñew ñu tok leer leen liggéey Tuubaa ci kanam bis boobee. Mhm. ñoom waa Guinée Bissau jaar nañ fa ay bolok yu bëree bëree bëri macha allah. macha allah ay jëwri nit ñew jël engagement ci liggéey bi. Mhm. waa daayira bi suñ Tuubaa bi daal di jël engagement ci liggéey bi ñoom it. Hmm. ndax leerul woon ci ñoom ñoo jàppoon ay nit yi ñu ko fa yor lañ rek. yàlla su ñu nga xam ne bi ñu waxtaanee liggéey bi ba noppi. Hmm. bis boobee ca la fu courant ne maanaam fa la fa la jëfe yem daanaka. Hmm. yàlla message bi jàllee. loolu euh, dañ koy sante yàlla. xam ne liggéey bu borom liggéey bi nangu la rek. dëgg la waral mu suturaal ñu. bal lañu lañ lañ doon xaar. ba waxtu wo jot mbolo mepp wuyu si ñu jallal fa message ba ñepp jot ko bañ jógee Guinée Bissau ci wat dakaru yalla gol japp yoonu dem bitim rew mhm. ci Europe mhm. ñu wacc France Paris ñu mhm. dem Belgique Bruxelles bobu liggéey bi dañ koy dégg dem Anvers ci Abbas ci Abbas ndeysaan Abbas Gueye waaw Abbas ñu koy jaar euh, sëñ Ibrahima jaxate mo nek euh, Belgique euh, Bruxelles Eh, ndeysaan di ay jàmbaar doon lool ñoom mhm. bu jógee ndeysaan suñ murit ndaw li nga koy waxee léegi mook suñ bëgg fàllu France waaw mhm. France ñu wàccaan Marseille mhm. ci soxna Alimatu Tukkari ñu koy nuyu mook soxna Xadi ñoom di ay soxna yoo xam ne nii xam naa du ñàkk suñ Murtala dana incha allah la jigéen euh, moom boo koy sant sax day day day day ok ok waaye moom porte na liggéey bi foofu ndax yàlla na ko dimbale daayira Sëñ Tuubaa ba nekk Marseille mhm. ku ci yàlla may cër la mhm. euh, donte du mag lool waaye pas-pas sëñ bi moom amul mag amul gone dëgg la boo ci nekkee rek nit ñi daañu la ko nangul mhm. yàlla dogal ñun moom warta fa ko implété que maanaam maanaam maanaam dugal ci président daayira yi nga xam ne moo jàppale murit ndaw booba ba murit dugg ci ñeme ci ñu nangul ko lu bëree bëri ci daayira Marseille bokk na ci daayira yi njëkk a porté njëkk yaatal liggéey Touba Ca Kanam bi boobu boobu mhm. ku mel ni su ku wax suñu Aliou Diop mooy yoroon liggéey bi France euh, waaye suñu a ndaw moom lañ ëpp lu ñoon dégg boobu àggoon na ci nekkoon modérateur u bi bépp macha allah mhm. di jàmbaar lool mhm. gannaaw bi ñu yaatalaate liggéey bi rek waaw la la bi ngay wax nii nekkoon Espagne moom it suñu Abdoulaye Lo ñoom ànd ko ñu liggéey bi ñu ci doxal fi jógee rek dugg Italie euh, Italie gu macha allah suñ góor a Thiam di jàmbaar lool ci liggéey bi moom it. Mm-hmm. ndax nii ko suñu xarit jaan defee bi ñu wàccee Italie ci Lombardia mooy sonu Milan bi li ko wër. Mm-hmm. dañ daan ànd maa ngi moom ci otoom ay trois heures de matin quatre heures de matin. ndeysaan ci ku war a xëy dem liggéey moom. Mm-hmm. waaw di def ay deux cent kilomètres trois cent kilomètres. di ko wër ay nit di ko wax. bis xasayit boo surne xasayit ba nga xam ne wala ñu def Milan. waaw la ñu fekk di nuyu suñu Ousmane Mbaye di ndeysaan moom bi dañoon def. kep kuñ xam la tut kan nga rek ñu copté duggal la jess dugal la ci biir noo mën propagande nit rek leral leen liggéey bi rek mhm. ñu ñu nga nga dugg ci kon boobu fekkat bi ngeen di def lolu ubbi ngeen groupe diaspora bi mm, waaw boobu groupe aussi diaspora bi waaw ci lañ commencé nak ubbi ko ci ngeen ko tambalé ubbi waaw mu ko mhm. ñu commencé doxal mhm. booba ñu duggé tali ci ngor cham mom ñom señ ñom señ euh, suñ Modou ñom ci lañ ci lañ feñé sëñ Baye Serigne job sëñ mhm. sëñ job Diop ñoom day jàmbaar loolu macha allah. ak sëñ Ibrahima Sall mi it. di ku ñuy dégg Massamba Niang moom it macha allah di borom posté. ok ay jàmbaar Toscana waaw. nga Massamba Niang bi may doxee ba ak si Toscana. moom it bokk na ci ñi ñu jël si foofu. porte liggéey foofu. macha allah ko. maanaam li jafe woon na lool suñ bay ci jamono mhm. yooyu. ah kay ah kay. Eh, mas naa ko wax yàlla dogal ku wax suñ Mor Dieng bi nekk Afrique du ma di ko nuyu mhm. en bi ñëwee Afrique Sud maanaam ma ci tënk rek biñ biñ noppee Italie yalla dogal émission ba ñu fa doon dox ñu jëgë fuk suñu so Mbacké ñu ngi nuyu momit bokkon ci. ñu mhm. fa yoron liggéey bu foofee. borom wa suñu so Mbacké Moussa borom. Jumaada hmm. Jumaada waaw ñu koy nuyu bu baax baax. hmm ko ñu wax suñu mod suñu modou Diouf. hmm it rom la nekkon ci hmm. yoron liggéey ci la bokkoon. li hmm. euh, nuyu suñu Baye Serigne Jongo hmm ay jambar lañ sha allah. suñu Aliou Euh, taali di di commencé di di di di yëngu. di yëngatu waaw. Baye Serigne Gueye nekk euh, euh, rajo Emilia. Mhm. ci ci ci côté Parma bi. Emilia Romagna. waaw rajo Emilia bokk ci ñi njëkk a taxawal bisu Touba ci kanam Italie. Mhm. ñu koy wax bisu Parma bi. Mhm, sëñ tàkk boobu moo fi teewoon si Abdoulaye Habib mu demoon na. Abdoulaye Lo mi ñuy wax li muy demoon na booba. muy bis boo xam ne moom la Touba ci kanam njëkk a organisé ci diaspora bi. yàlla dogal man déwumoon waaye ñooñu fa teewoon matoon nañ ko sëkk. macha allah ubbeeku lool. Euh, sëñ bay xam naa. waaw dañuy daal di tënk loolu. tënk foofu noonu waaw jërëjëf sëriñ euh, Abo Bousso mel na ni euh, li ci ëppoon solo rek mooy laaj bi mooy ne taxawal lu bees luñ xamagul woon surtout nag di ci laaj xaalis loolu gis nañ ne waxtu na jafe na. loolu lañ jublu woon a indiwaat ba ñu xam ne tey bu ñu dee toog di dajale koppar yu baree bari tey la ñu gëm liggéey bi xam ko. waaye am na jëmmi jamono yow mi wax ak nit ñi dañ lay xoolaat te loolu nag euh, lu lu ku ne xam na ne njàlbeen bu nekk day tar waaye gis nañu sëñ Abo dugal na ko Gambie dugal ko Guinée Bissau dugal ko Belgique dugal ko France mu dem itali kon foofu la ñuy euh, tënkee dellu siwaat nag ci Serigne Moutada Mbacke moom Serigne Abdoul Fattah moom it euh, xam ngeen ne moom moo jiitee commission sociale sëñ Moutada ginnaaw bu ñu la ziaree ba noppi yow tamit bëggoon nañu ci Euh, commission sociale ndax euh, njëkkul ci yow euh, gis nañ ne Touba ci kanam ku ñuy wax sëñ Moustapha Amar moo jiite woon commission sociale nan la commission sociale def ba ñëw ci yow sa diggante ak sëñ Moustapha Amar ak it nag ginnaaw bu ñëwee ba ci yow liggéey bi nga xam ne jot ngeen koo jot ngeen koo amal ci at yi ñu weesu ba ba ñu egsi ci atum 2021 moom dañ koy mujjee ngir ñaareelu parti bi waaye 2017 boobu 18 kañ la social sosu ak euh, lan ngeen ci jotoon def ci diiru ñetti at yi bala ñu ñëw ci ñeenteelu at bi mooy doon deuxième partie bi. sëñ sëñ sëñ Maytan di jaajëfal bu baax sëñ Abo comme doon leerale euh, liggéey bi nga xam ne relation extérieure def nañ ko ci ndorteel Touba Ca Kanam. Mm-hmm. te mu doonoon lu lu jafe. Mm-hmm. ndax mépp mbir moo xam ne da nga koo da nga indi te mu doon lu bees loo xam ne nit ñi xamuñu ko. Mm-hmm. day mel ne ci njëlbeen gi nit ñi de day mel ne da doon jublu li ñuy wax naa ñuy wax naan annaasu axdaa'un limaa jahiluu. dëgg la nit ñi lu ñu réeree ñaar dañ koy xaw a dañ koy xaw a ñàkk jublu. Mm-hmm, mm-hmm. waaye ñu def seenu njàmbaar. ànd mm-hmm. ko bokk yi nga xam ne ni ñoom la toogal. sëñ Modou Seck sëñ Cheikh Nalou. ak yéen ñi sëñ sëñ sëñ sëñ Xaadim Thiam. ba mu agsi fii mu agsi ak sëñ Abdou Lahad Lo. ak mboolem ñi nga xam ne sëñ Abdou doon leen doon leen tudd. ba léegi ñu nekk ci liggéey bi te. tekki woon seen laxasaay hmm. ñu ngi ñaan suñu borom gën leen a dëgëral te li li yéene ci liggéey bi yaatu bitim réew hmm. ak àggale ko fa hmm. ñu suñu borom defal li ñu ci tawfeex ci mbaaxub sëriñ bi euh, comme ni nga ko laajee rek ci commission sociale bokk na ci commission yi nga xam ne nii moo sos liggéeyu Touba ci kanam mën naa wax sax ne commission sociale ci leen liggéeyu Touba ci kanam tàmbalee ndax liggéey bi bu njëkk doonu doon liggéeyu jëf waaye liggéeyu wax la woon dañ daan def rek buñ gisee ci dëkk bi loo xam ne nii gis nañ ne warees na koo defar wala euh, ni muy doxee bëgg nañ doxin bu gën a jub ñu jël ko ci sëñ Fallou Ndiaye mi nga xam ne ni moo moo sos turu tubaa ci kanam defoon ab rubrique ci Touba info mu jiyaag mu def groupe whatsapp boo xam ne nii mboolem li nga xam ne ni war naa am ci dëkk bi rek dañ ko fay dugal. nga xam ne njëlbeen gi moom ay wax rek la daan doon. luñ dénoncé dal ba nit ñi yëg ko rek ñu ñu ñu ñu def ci conférence mhm. skype euh, samedi bu noppé jéem xol ñan ñoo yor walu goor bu dé maire bi wala bu dé kilifa diiné yi yaakaar naa jëf mi ngi njëkk tambulé ci rompay bi nga xamné mo nekk ci garage buntu garage wetu garage Dakar mhm. ak rompay bi nga xamné ni bo nekk ci buntu euh, booy dugg Mbàkke mhm. mu melni melokan waxawon na ki mané ci jamono boba ci la bokk yu doon wax def ci reportage. vidéo bi ñu ciy wax ba mu yàgg ñu ne waa lii moom nan moo ciy pexe ñu ne nañ ko jaayante. bokk fa nekkoon ku nekk génn ginnaaw bi ci la autorité locale yi réagir maire ak équipe bi mu àndal. ñu ngi leen di sant di gërëm ca taxawaay booba. jël engagement defar ko mooy defar bii mu nii mu mel nii. bi nga xamee ne teg teg nañ ci tuuti rek eh, jamonoy nawet. Eh, ci jamono ji ñu toll waxtu wi ñu toll. taw bi bëri ci réew mi waaye rawatina ci bokk na ci quartier yi gënoon a bëri ndox muy ndaamaatu ak Gédé nga xam ne jàkkee Sëñ Saaliw ji nekk foofu toog nañu weer ak lu topp boo xam ne kenn julliwu ci tabaski 2016 jàkkee Sëñ Saaliw bu dutoon Touba ca kanam yaakaar naa duñ julli tabaski ci jàkka ja ci la am ñu doon wax sax naan ndax duñ bàyyi wax ji te jéem a jëf euh, ci jamono booba ñi nga xam ne nii autorité étatique yi ñëwoon nañ fii mën naa bañ a tudd tur ndax ministère boobu jamono boobu xamoon naa ko hmm. bi mu ñëwee plan ORSEC bi ñu déclenché woon gis nañ ne fii un milliard la état bi jëloon ngir mu war a dem ci inondation yi nekk Sénégal yëpp hmm. bi ministère bi agsi yi neuf cent millions yi wax na ne dem na cent millions yi ci desoon te Kaffrine nag ak yeneen dëkk yoo xam ne dañoo inondé hmm. bi nga xam ne jaaxle googu am na nag la bokk yi wax ne nañ ko jaayante nga xam ne boobu mooy dañoo waxoon ne nañ sos commission sociale boo xam ne nii ñooy jaayante ñooy dajale jaayante bi. ba hmm. léegi nii sama téléphone bi ma yor liste bi ñi ko ñi jaayante woon ci liste bi mi ngi mën. macha allah ci lañ jaayante sëñ Mourou Kara ci ak njàpp ngalam yàlla suñu borom sàmm te guddal aw fanam. Hmm. yebal fi ay éléments ñu ànd ak ñoom ñi man ñi man a joxe ciment ak lu waaye man rek. lu hmm. fexe ba jëlee fi ndox mooma fexe ba. jakkaje ñu fay julliwaat hmm. ña fa amone ay kër te mu yàqu tamit jéem koo saafarawaat hmm. loolu mooy so soosu commission sociale macha allah bi nga xamé ne dem na ba tuba ci Kanam nek association hmm. ba ba nos ko nak ci lañ ne nañ nañ nañ jël ben bankas bo xamné <coughs> barkel barkeel yi nga xam ko yobbu ci barab bu sel bi ngir baña tuddu tour tur wi bu ñëk gis ngeen ne njëlbeen gi daawuñu wax sos commission sociale waaye dañ daan wax sociale barab bu sell ba moom lañ daan moom lañ daan tudd loolu la ñëpp daan wax loolu dong moo taxoon a jug sociale si jamono boobu nga xam joxe tamit li liy ñëw foofu lañ ko jëmbale ngir suñu suñu bokk yi nga xam ne ña ña fa nekk te lañ fa nekkee jàpp naa ne bu ñu mënee toog fii di wax bokk na bokk na ci kaaraangeel ñu mën a toog fii ndax moo doon toolu sëriñ bi mm-hmm. eh, ci loolu lañ lañ def ñu ne euh, nañ def réunion boo xam ne danañ tànn njiit. Mhm. ñu jiital sëñ Moussa Amar réunion ba njëkk a def yàlla dogal na ma ñuy bokkoon naa ña fa ña fa teewoon. Mhm. ci la commission sociale tàmbalee. nga xam ne ni mhm. at yu njëkk yëpp daal ci bërëb bu sell bi rek moo ko taxoon na jóg. Euh, ci ay année 2018 2017. ci lañ wax ne nañ ñuy def social ramadan maanaam koor gi ñu ñu créé ay journée yoo xam ne dañ koy def. sëñ Moussa Amar. def na ko fi lu tollook ñaari at mhm. tamit ñu ngi koy sant bu baax ndax liggéey na fi liggéey bu am solo euh, ba léegi nii tamit mu ci commission bi mhm. bi nga xamee dem nañ ba 2019 nag ci la euh, assemblée générale bi ñu defoon ci la comité directeur yi euh, wax ne man mii dénkali nañ ma mbir mii mhm. bi ma koy dénk itam ni ko ñu bëri xamee liggéey bu Touba ci kanam moom daanaka li bëri ci cër yi nga xam ni moom lañ doon joxe ci njëlbeen mhm. doonutoon cër yoo xam ne nit ñi dañ ko daan xëccoo waaye daan la koy yan bu la neexee bu la naqaree yëpp nga jël ko mhm. daanaka mbooleem ñeen faloon ci jamono jooja dénk leen ay ay liggéey ku ci nekk yaakaar naa ban la koy dénk da nga faa sosoon maanaam mhm. kenn nangu wutoon a jël mhm. moo tax ñu yàndoo ko ci noonu rek lañu ma joxe liggéey bi mhm. eh, jëlaat sëñ Moussa mi nga xam ne moo ko jiite woon mhm. ñu toftal ko ci man eh, ñu ànd liggéey bi eh, bi nga xamee ne dikk nañ ci nag ak équipe bi ñu àndal ak jàppandal Touba Ca Kanam rawatina kilifa yi rawatina kilifa yi kilifa yi nag su ma ko waxee du ma ci mën naa ci jiital kilifa yi nga xam ne ñoom lañ toogal ndax dëgg la dañuy tuddee ay commission naan relation extérieure communication sociale nangam waaye mbooleem li nga xam ne social da koy def ñoom ñii dañ ciy jàpp ci saa ak ci bàtt. ku ci génn tamit ci bitim réew foo foo waxee ak bokk taalibe yi da nga ci liggéey bi. Hmm. te bu dee ci jëf tamit ñoom ñi kenn mënul leen ci. waaye bu dee ci ay xalaat itam jamono ñëpp ñoo ngi koy joxe. Hmm. rawatina nag ku mel ne suñu Abibulahi Mbacke. mu hmm. Cheikh Mamadou Fadal ak suñu ak El Hadj Serigne Tall. ñoom ñoom yaakaar naa seen i jëf moom jërul ma koy seere fii ndax. weer ku kuy toog weer da gis seen jëf jamono yu nekk lu ñu woote itam ñoo ngi ci mhm. noonu lañ ko mën a waxee ci soxna Bintu Mbàkke mu suñu abibu ak mboolem kilifa yi suñu waxee suñu abibu suñu tàkku dana yóbbaale kilifa yëpp mhm. suñu waxee suñ soxna Bintu Mbàkke dana yóbbaale soxna yëpp mhm. eh, ginnaaw bi nag lañ xalaat ni eh, ginnaaw leer mbir mi barkeel na ba lañ daan yóbbu fële jekku nañ ko bu baax a baax nañ ko gën a yaatal ndax ab tàmbali bu barkeelee rek mooy waral mu yaatu ci lañ dem nag ba yokk ci di intervenir ci wàllu wér-gu-yaram ci ñi nga xam ne nii seen loxo jotul seen ginnaaw ak ci wàllu dëkkuwaay ak ci wàllu dund ak ci wàllu bërëb bërëb suurukaay ba fii mu toll nii mhm. événement lañ daan am muy social ramadan mhm. ginnaaw bi lañ ci yokk kori gi mhm. kori gi tamit ni ñu koy defee nii ak nañ ko daan defee bokkul xëy na danañ ci ñëw waaye nañ ko daan defee bokkul ay 2018 2017 yaakaar naa ci lañ wax ne nañ def social tabaski. Mhm. boobu itam ci ay yére la yemoon. Mhm. ginnaaw bi itam dañ ko war a gën a yokk waaye waruñoo yem ci ay yére képp waaye dañ cee war a boole leneen. Mhm. di def social ramadan bu korite gi ñëwee ñu gën koo yaatal gën koo gën koo fonk. bu tabaski gi ñëwee noonu ba ci social màggal sax dañ koy def. Euh, weer yi itam liggéey bi social di def xëy na da koy fësal ci. jamonoy événement yooyu waaye bu weesoo événement yi tamit jamono ji nekk ci loolu lañ nekk mhm. loolu daal mooy li nga xam ne nii mooy laaj bi nga laajoon mhm. muy nan la commission sociale sosoo mhm. ak kan moo ko njëkkoon a jiite ak ñun ñi nan lañu def ba ba mu nekk ci suñuy loxo ndeysaan waaw loolu daal mooy mooy ci ci ci laaj bi <coughs> jërëjëf sëriñ euh, Murtada Mbàkke ibnu sëriñ Abdul Fatah ci noonu nga ñu fàttale historique bu euh, social Touba ca kanam Euh, kon ñun ñoo ko déggandoo ci ne tàmbale woon na ci ay kàddu di jéebaane luñ jàpp ne lu war am la te gisaguñu ko waaye tamit euh, doon xoolit ñi yor loolu ci dëkk bi euh, fexe ba loolu di saafara waaye ñu mujj nag ne nañ bàyyi koo ci loolu tey am lu ñuy jëf loolu it point yi ñu wax doy na ci sëkk rek jumaay sëñ Saaliw ji loolu yaakaar naa ne bu dul woon Tuubaa ci kanam mën nañ faa yéex a julli loolu doyoon na sëkk taxawaayu social waaye barab bu sell bi nga xam ne sëriñ bi ñaar fukki ak juróom-ñett yi nga xam ne ñoo ci ñoo fa daan nekk te di wéy di fa nekk mu wax ne taxawaay bu njëkk bi ñooñu lañu amoon yéene féete leen ci seeni li jëm ci seen lii yéwénal seen dund loolu nag doyoon na sëkk waaye mu mel ni dem nañ ba jëmmi jamono loolu ñu waxeen wi ak doxalin wi ñu gën ko dellusi dellusiwaat ci njàngaleem sëriñ bi yaatal nañ ko ci nit ñi ak dëkk yi ak it euh, sax ñi am jafe-jafe ci wérgu yaram ba ci ay dëkkuwaay kon loolu lañ ciy gisee rek mooy taxawaay bu am solo la waaye mu amaat lu am na ci biir mooy sëriñ Moustapha Amar mi ko jiite woon jot nañu xabaar ci ne bi ñuy dénk sëñ euh, Moutara mi social boobu fekk ko fa woon waaye biñ ko wooyee wax ko dafa joxoon ngànt bañ dëgërale nag kii ci loolu war a am daa mujj dagg ay itam fekk si jotaay ba ngir joxe ngàntam waaye Moustapha Amar mi nga xam ne moo yoroon liggéey bi moo ko ne ko sëñ Tuubaa la ko jox mu mel ni kon loolu day wane rek ne tubaa ci kanam cër yi fi nekk du lu ñuy ñoddi ak lu ñuy xëcc wala ngay lijjanti ngir jot ko waaye bu fekkee sëriñ bee tax rek kenn ku ne li nga am li nga war a jot dañ la dañ la ko jox te dañ ne ku wuute tax jotoo sëb cër boo fa teew ne doo ko jot kon loolu it day day feeñaat ci mbirum Tuubaa ci kanam eh, ci wàllu commission sociale léegi kon dañuy ñëw rek ci ki nga xam ne mooy sëñ Cheikhouna Lo ndax eh, ñu micro bi ndax moom moom mooy actuel président commission relations extérieures sëñ Cheikhouna fi ñuy dañuy dañuy ñëw ci euh bala ñu ñëw sëñ Cheikhouna dañuy delluwaat ci sëriñ Mohamed Seck mi nga xamné mom moy euh deuxième vice président ndax xam ngeen né sëñ Abo indi na lenn ci njëlbéenu Touba ci kanam euh, ci diaspora bi ba ñëw ci ñeenti réew japp juroom Gambie Guinée Bissau Belgique France Italie ñu ñëw sëñ Mourtala mu nu lenn ci wàllu social dañuy delluwaat ci sëriñ Mohamed Seck euh, sëñ Mohamed Seck euh, dégg nañ ci kàddu yu sëñ Abo muy junjule fu mel ni Amérique continent bu Amérique bi liggéey bi bokk nga ñi ko fi tàbbal yan réew nga duggoon ci Amérique ak nan nga defoon ba liggéey bi man faa àgg ndax ak ndax yomboon na comme li wax sëñ Abo yomboon na ci lu ñu xamul woon dañ ciy joxe xaalis ñu bëgg koo dugal ci réew mu mel ni réewum Amérique sëñ Mohamed Seck. waaleykum waa ni ko sëñ Abo waxee rek waaye bala may sori dafa am koo xam dama ko fàtte woon. Mhm. muy président Abdou Fatah Guèye. macha allah. Eh, nuyu ko sant ko ci taxawaayam. Mhm. ci liggéeyu sëriñ bi. Mhm. te ba Touba ca karam tàmbalee ba léegi. foofu la fare woon. dëgg la. Eh, ba nii ñu ko joxe lii ci nga xam ne da koo sëñ tabañ. comme li ngeen doon wax léegi rek. moom Abdou Fatah. moom Abdou Fatah biñ koy jox liggéey bii. dafa bañ. kon deful campagne ngir war a toog def campagne ci liggéey bii ñu ko jox. ci yoon yi mu ko jiitee yépp bu ci nekk taxaw naa mu taxaw bañ ne du ko jiite. ñu forcé ko am na ci yoon woo xam ne sax euh, dañoo dem ci ay kilifa kilifa yooyee jàpp ci ngir mu nangu ko ba ci bu mujj bi macha allah kon kooku kenn waru koo fàtte. waaye xel day fattu te it noonu mu ko defee ni lag ci amee pësteef ci jamono bu ne hmm. am xëyam a ngontam lépp yaakaar naa ne ab liggéeyam léegi ñeneen a ko yor waaye moom mënu koo booleeg Touba ci kanam te amul lenn luñ ko ciy joxit nag hmm. amul lenn lu luñ ko ciy jox xanaa kay mooy joxe alalam di joxe temps di joxe léppam euh, akub deram macha allah macha allah ndax liggéeyal suñ Touba moom noonu la noonu la ma bindoo hmm. da ngay boole joxe sa alal joxe sa doole di joxe sa der macha allah kon ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm nii nga ma laajit nag ci bitim réew mu ne côté bee nga xam ne moom la ñu muy jamono côté Amérique. Mm-hmm. moom noonu la deme mm-hmm. daanaka li ci matoon a wax lépp Serigne Abo wax na ko. Mm-hmm. ñi ma jiitu wax nañ ko. kon xanaa di santaat yàlla bu baax rek. ah di ko waxee comme ni mu ko waxee woon. muy ne jafe na waaye yomb na. ndeysaan jafe gi mooy yi fi xewoon te bari. nga xam ne. jamono bu nekk dañuy dem ba am yaakaar ci dara euh, ba mu dëgër leneen ñëw yàqu ko mm-hmm. fekk na taalibe du tàyyi waaye seenum xel rafetul dalul woon mm-hmm. te it rawatina bitim réew nga xam ne nii da ngaa faa nekk mm-hmm. di dajale ba sonn defee ne fi nga koy def dana àgg te mujj na même bu dee àggit fa nga yaakaaroon ne fa la jëm du fa du fa demeewul noona am doxin wa day dox ba yàgg mu taxaw la ci jubloo xam ne lañ doon joxe sax xëy na ma nga doon àgg fañ ko jëme waaw waaye nag day dox ba yàgg mu taxaw fuñ ko foogewul woon mm-hmm, mm-hmm. ci yooyu lañ tàyyiwoon mm-hmm. ah bi nga xamee ne nag liggéey bi taxaw na waaye nii ko sëñ Abo waxee léegi da am solo mooy moom bi nga xam ne moom lañ ko bokkaloon daf ko yombaloon lool ak ñeneen ñi ko jiite woon mooy euh, sëñ Abdoulaat bëgg fal bàyyi sëñ Guèye boo ko dee lim day bari dañuy bari waaye ñooñu ñëpp dañ cee jàpp nag bañ ci jàppee ba noppi nag bi nga xamee ne àgg nañ foofa tamit muy Amérique gee moom. Mhm. Ah, yàlla dogal sëñ sooy bu sekk ma nga xam ne moo ko jiite fii léegi. Mhm. jamono booba moom it daa nekkoon ci xam mooy sansanaati. waaw ci moom lañ ko njëkkee <coughs> tàmbalee. muy doxal. Mhm. wax dëgg yàlla di ca góorgóorlu bu baax a baax doon jàmbaari fàkk tëdd. Ah, muy nii ñu ko waxee ci sëñ ci Abdou Fatah rek noonu lañ koy waxee ci moom. Ah, bëggul dara ci yi ab liggéeyam. ci da cee nangoo sonn lool ci àllam ak ci taam mhm. te bëggul benn yoon dara bëggul problème moom daal li mu bëgg mooy muy mhm. dox rek mhm. New York gi itam ñu fekk fa jàmbaari fàkk tëdd mag koo xam ne ni ka ko am muy sëriñ Masey Ndiir waaye ma sëñ Masey nag jiitewu ko woon waaw ku ñuy wax sëñ Seex Fall Baye Fall moo ko jiite woon doonoon ko jàmbaare lool wax dëgg yàlla dox ci tànk yu am solo waaye téewul nag jamono yooye dañuy doog a tàmbali bari na ñoo xam ko ñun ña fa nekkoon it bari na daal dox dëgg yàlla doy na waar. njalbeen bi ci njalbeen bi. Mhm. waaye ba ñu dikkee nag ñu yàlla dogal ñu dem toog ak président daayira ba. Mhm. ka nga xam ne moo fa nekk euh, léegi. Mhm. muy sëñ Pape euh, euh, Pape Dramé. Pape Dramé waaw. sëñ Pape Dramé moom yaa nag ñu ñu moom rendez dem ca juma dem ca daayira ba. ñu jox ñu fa temps ñu waxtaane fa. ba ca fale nag. sëñ ma Masay Ndiir mii. Masay yàlla dogalin nag fekk na sax sëñ seex Ndiaye lañ fa jëkk fal ca sëñ euh, kii njaay moomu sëñ euh, Baye fal boobu laal ma la ñuy wax moom lañ jëkk a fal. waaw waaye bañ ko euh, sëñ Cheikh. Cheikh Fall Cheikh Fall. Mhm. bañ ko falee ba mu am atit yëf ya daal dëgër na. Mhm. waaye bañ dellusiwaatee nag demaat ca daayira ba. Mhm. toogaat ñu toog a bokk a toog ca lañ ko joxe moom moomu it nii ñu ko waxee rek. Euh, dañ ne ko jël ko mu ne mu du ko jël moom sëñ Cheikh Fall moom hmm. daal ne nañ ko jox sëñ Masey mii ndax euh, jàmbaar la nangam jàpp dattee jàpp bu dëgëra dëgër hmm. foofee hmm. naa jël na fa juróom benni carte bu ko joxee sëñ ba noppi ci saasa rek fi saasa rek yoo xam ne moom moo ko jël ak njabootam 34 yoo xam ne ni foofee la ko jële kon kooku xam nga ne ñu jël sab sab sab liggéey jox la jël sab liggéey jox ko keneen nga jëfe lii kon xam nga ne lañ la jox naqariwu naqariwu la mhm. lañ la lañ jële ci yow naqariwu mhm. kon mu feeñal ko bu baax sëñ Masey moomee nag bañ ko ko joxeek léegi mhm. yàlla dogal mu déggoo lool ak taalibe ndeysaan ndeysaan déggoo lool ak waa New York ca États-Unis New York da cee bari doole lool dëgg la déggoo googee mu déggoo mbooloo ma nag moo yóbbu tey Touba ca kanam fii mu àgg tey ca New York waaye nag fàttewuñu ah, ñeneen ñam ko bokkal mooy ku mel ne soxna Dikkel Badiane jigéen ju jàmbaare am na nu ko sëñ seexu naa loo di wooyee jigéen la ju jàmbaare joo xam ne moom daanaka ah, belt rek ko manqué waaye wax dëgg ko fonk liggéey bi la moom it ah, ak ñeneen ñoom ko bokk bokkal mm-hmm. foofa daal foofu foofu lañ yemoon macha allah ñooñee nag daat koy doxal doxal boo xam ne nii macha allah mm-hmm. alhamdulilahi rabbil alamin ba fii mu àgg li mm-hmm. ñoo ko gisandoo ñu jóge fa nag daal di dem Brésil Brésil ba ñu fa àggee fekk nañ fa sëñ Cheikh Ndiaye. sëñ Cheikh Ndiaye ku teel a bokk ci liggéey bi la ñu fond euh, membre la. Mm-hmm. moom it waaye nag doon ku jàmbaare lool lool lool mm-hmm. jàpp ca bu baax a baax ak mboolem ñam ko àndal. ku ñu wax mm-hmm. fi ni ne nii euh, jóge na fa waaye ñam fa ñam fa samp ñoo fa nekk. sëñ Seexu naa. xulle xulle waaw ak sëñ Amina soxna Amina Ngom Ngom mhm. jàmbaar ju jigéen ju mën góor mhm. sëñ Seexuna moom it gis nga ko xam nga xam nga nam mel mhm, sëñ Jaw Mbeng ak ak sëñ Jaw Mbeng moomu léegi nag boobu ba ma agsee nag sëñ Seexuna xam nga sëñ ah, sëñ Seex day day magum murit waaw moom day daal di ci àll bi rek nga xam ne maa ngi fàttaliku bis boo xam ne nii dëkk ba mu ma yebal am naa dama fanaan ci yoon bi ba bët set ngir jëm dëkk dem ci dëkk ba ba ma àggee tamit dox fa la ma fay dox damaa daal di retourné waat fanaanaat ci yoon bi ñaari fan nga xam ne aller retour dégg nga foofa itam ñu dox ko ba ma ñëwaat ba ma ñëwaatee mu daat may tabaat feneen rek waaye ñuy dugg ci àll ba nag di ko di ko doxal foofu di ko yaatal mhm. ba fii mu àgg moom it mu àgg wax dëgg yàlla ay jàmbaar nga fa moom Brésil uh, am nag jàmbaar ju mag yoo xam ne nii ma nga woon Arsanti mhm. ku ñuy wax uh, sëñ ba Yankoba Guèye Yankoba Guèye waaye moom daa daa bokk ci seexi murid mm-hmm. moom li muy dégg Touba ca kanam ku nekk woo na ko téléphone ku nekk dugal na waaye da dem moom mm-hmm. lu man a xew daal fii teguma fa sama tànk man waaw ba mu wax ak man ba pare lu ma ko ca wax jàpp na ko waaye lu ma ko ci waxul du ko jàpp tey it ñoom duñ dugg ci diggéen du duñ dugg diggéen cey li ñuy am daal mooy am lu wér mm-hmm. mu dugg dugal dugal waa waa Argentine amu ko day toog ba du yàkkamti nga xam ne woo naa ko téléphone lu ne mu ne daal lu ma foofu laa jàpp foog nga ñëw waaye yàlla dogal nag ba ma fa àggee ba toog ak moom mu laaj ma benn par benn laaj ma benn par benn ba ma àggal mhm. fa saasa la daal di woote it yàlla mayoon ko fa cër ndax biir Argentine gépp dañ ko doon déglu macha allah dëgg yàlla macha allah moom mu nag fu liggéeyu Argentine àgg tey rek ca la ko fa àggale ca la bokk sëñ Yankhoba Gueye moom sëñ Yankhoba Gueye moom ñu ngi koy nuyu de passage mhm. ma nga ma nga ma nga Angleterre mhm. waaye ku jàmbaar la ñu ngi koy sant te ku gërëm moom it noonu la ma daal def rek dugal ma ci àll bi mhm. dëkk bu ne mu ne ma dem fa ñu daal dem ci dëkk yi ba yaatal ko ak soof ñu sant nag bu baax a baax a baax sëñ Pape Soda Pape Soda sëñ Pape Soda moomu bi ñu ko jëlee ci bi fi sëñ Yankhoba Gueye ci loxol sëñ Pape Soda moom la ko teg waaye sëñ Pape Soda moom doon ku jàmbaare lool moom sëñ Cheikh Ndiaye ma fa nekk. Mm-hmm. Ah, ba ak soxna yi soxna ya fa ne. soxna mm-hmm. Fat Thiam xëy na du ma xam ñëpp waaye soxna Fat Thiam moom. Mm-hmm. ma nga fa. soxna Sophie Thiam ma nga fa. waaw soxna Sophie. Uh-huh. ak ñeneen ñoo xam ne ñoo la ko bokkal daal. foofa daal lañ jaar ba liggéey ba àgg. tey jii nii. liggéey ba àgg na lool fu kawe suñ jot ñëpp. macha yow côté boobu daal foofu lañ ca àgg. waaye nag lépp nag baatu. sëñ Abo. sëñ Abibu. la mii nga xamante ni moo waxoon ci rajo yi ñëpp dëkku. Mm-hmm. ca yàlla dogal ñu baree bari xamoon ko taf lañ ko xamee mooy yoon wu jub siraatul mustaqim. Mm-hmm. kookee nag moom moo nu doon dimbale dem nga xam ne foofu moom lañ fay fekk. ndax fekk nañ bu ñuy dem dañu fekk vidéo bu mu fa defoon wala audio bu mu defoon ñu jot ko. Mm-hmm. bu ñu boobaa noonu bu boobee la ñuy def mooy àggale rek. waaw noonee ci nañ koy sant tamit sëriñ. Sëriñ Tàkko ko Tàkko noonu la ko doon defee Amérique gii nag moom mhm. bokk na ci ña ko ña ko toj moom macha allah Amérique moom moo ko mokk ko rumbux mhm. ñu koy ñaanal yàlla sàmm ko te taxaw ko nii daal lañ lañ ko kiyee ni ñu koy waxee nag mooy euh, Touba ca kanam daal dañ koo defuk matt da ko sëñ laa daan waxee mhm. tool yi daal la ngi nii na kenn ku ne seet matt gu mu àttan matt gi nga àttan nag boo ko xasee ba yëkkati foo jëm jëmee ko fa booy tëdd tëddal ak moom booy yeewu yow la moom booy dox doxal ak moom na nekk suñ poos na daal Touba ci kanam ci suñ poos xamante ni mën nañ ko faa àggale mhm. bu fépp fu ñu dem rek moom dana fa àgg incha allah ndax ginnaaw mu ngi ànd ak nun moom fu ñu àgg ma ma nga ànd ak nun macha ñu mayee ñu waxee ko fa dañ ko fa waxe fu ñu may wax ko fa it ñu boole ko suñ jëmm rek tubaarkalla jërëjëf sëriñ Mohamed Seck ci Touba ca kanam lii boo gisee ñu koy def ngir ñi fekk tey Touba ci Kanam toll ci boo laajee ñu jox la boo wootee ñu wuy si boo diglee ñu def loolu dafa am lu tax mu mën a am te dañuy wax ne démb ju ne moo lay jàngal tey lii dañ ci war a jàngate ne bépp jafe-jafe bu ñu jànkonteel ci fi ñu toll ba jàpp na loolu war nañoo mën a gàllankoor nañ delluwaat ci lii di waxte ñi ngay waxal ñi ci ëpp duñ la gëm jàpp nañ ne li fi jaaroon noonu lay demee nga muñ loolu dox ci ba suñu borom may la liggéey boobu kon ñu ngi jaajëfal bu baax sëñ Modou Seck euh, di ziar bu baax a baax de passage sëñ Cheikh Fall sëñ Masey Ndiir sëñ Soñ bu Seck soxna Dikel Thiaw Badiane ak bokk yu ñu nekkal Amérique yëpp waaye di ziar bu baax Cheikh Ndiaye Brésil ak sëñ Yankoba Guèye waaye di ziar sëñ Cheikh Nakoulé soxna Amina Ngom ak tamit sëñ Cheikh Ndiaye mi nga xam ne moom mook sëñ Yankoba Guèye ñoo bokkoon nekk Argentine te mu nekk Sey fi mu nekk nii euh, ak euh, ki nga xam ne moom mooy Serigne naa loo di président commission relation extérieures léegi mu mel ni première partie bi dugg nañ Touba dugg nañ ci diaspora bi dem na ci réew yi am nañ première commission relations extérieures liggéey na ñaari at yeesal nañ ko def nañ coordination ñu ngi ziar bu baax a baax sëñ Blaat Mbacke sëñ Abib ak fukk ak ñett ñi mu àndaloon sëñ Moustapha Mbacke Italie Baye sëriñ Gueye sëñ Abdourahmane Diop soxna Alimatou Doucouré waaye di ziar bu baax a baax. Euh, sëñ Cheikh euh, euh, Ndiaye bu Brésil ak sëñ baay Fall fay sëñ Malick Dieng waaye di bu baax sañ Pape Si sëñ Ablat Amar sëñ Moudaat Seck ñoom ñi nga xam ne sëñ Soñ bu Seck sëñ Moussa Ndir muy fukk ak ñett ñi nga xam ne ñoo yore woon liggéey boobu ci at mi ñu mi ñu génn muy coordination bi ñu toll nag ci bi at mi ñuy dugg ren ni ñu teg ci ki ñuy wax sëñ Cheikh naa Lo bu Ngaabu muy président commission relations extérieures ñaari adjoint ñëwaguñ ci seen liggéey ginnaaw bu jëlee fonction waaye dañu doon jàngat ñoom seen parcours pour xam lan moo sos diaspora bi ak lan moo tax bi sëñ naa Lo du ñëw fekk na ko ci juróom benn fukki réew ak juróom yoo xam ne dugg nañ ci Touba Ca Kanam sëñ Cheikhouna Lo ginnaaw bu la ziyaare fekk nga toj nañu diaspora bi liggéey bi dem na ci juróom benn fukki réew ak juróom waaye dafa am ñaar yoo xam ne mënul ñàkk ci mbir moo bëgg mu dox mooy organisation ak structuration maanaam aw doxalin aku tëralin mënul ñàkk bi nga ñëwee ñu dénk la liggéey bi yan tëralin nga def ci diaspora bi ba tax ñu jàpp ne cahier de charge bi ñu la jox ci bëgg mu nekk loxob tubaa ca kanam ci lu nekk bitim réew te war a dugg ci biir Sénégal nga mën a fexe ba mu jàpp jàppandi tey boo ñu bëggoon jàngatal tëralin ak doxalin bi nga xam ne bi nga ñëwee nos nañ ko ci diaspora bi lan nga ñu yox sàngam sañoo cee jëfandikoo wala nga soppandiku ci xaalis bu toll nii. Mhm. muy fiscalité wala finance wala na mu tudd gox booba. mu doon loo xam ne dañ ciy am ay coono mhm. ci masawu mhm. eh, la koy waral mooy ubbi ay compte xam ne. li ci Touba ca kanam. li cay mën a def la am jëm ñu ca kanam rek. reconnaître ko te réew ma xam ne lii kat ku yor xaalis boo ko ciy dugal mhm. bu fekk mën a def waaye bu boobaa bu def yi jànkoonte yëpp dina nekk ni dinañ ci am ay bokk yoo xam ne mhm. dañuy yónnee seen kër sax dañ euh, koy yónnee fexe dina leen teel rek ngir la ñuy jëfandikoo ci xaalis ko yónnee muy xaalisu Touba ca kanam. Mhm. loola ñu leen yëg ay coono yu métti. Mhm. loola bokk na ci pour saafara ko lu ñu sas euh, kuréel gii di relation extérieure. Mhm. bokk na ci it euh, mboolem murit bu nekk ci biti ñi nga xam ne dañoo jokk ci liggéey bi ñu xam ñan lañu ak ñaata lañu. fexe ba xam ñaata lañu am ci ay maam ca foofa. waaye it fexe ba xam même bu fekkee ne ñu ngi ngir jéem a natt mboolem mbir yi nga xam ne dañoo yor ay xam-xam am ay man-man ci biir euh, diaspora bi. Hmm. di fexe ba euh, am base de boo xam ne lu ñu soxlaati ci fii wala lu mu doon ci dëkk bi. Hmm. danañu xam fan lañ koy wuti loolu bokk na ci li ñu bi ñu dikkee it euh, li ñu ci def mooy liggéey bu nekk am nañu koy saytu. Hmm. muy cabinet euh, relation extérieure mhm, mhm. cabinet boobu ñeenti nit ñoo ko composé mhm. muy man Cheikhouna Lo ak Serigne Abou Sëp Serigne Mohamed Seck ak Serigne Massay Mbiir waaye amaat nay secrétariat secrétariat boobu euh, am ñeenti secrétaire muy Baye Serigne Diom Taalib ak euh, Serigne Baye Fall Faye ak eh, Serigne Amady Wade Australie mhm. ak Serigne eh, Pape Amar eh, Canada mhm. loolu nag li ñu tax mu jóg mhm. mooy lépp loo xam ne dañ koy bind wala muy jóge ci yeneen sous commission yi te ñeenti secrétaire yooyu ñeen ñi nekk cabinet relation extérieure dañoo séddalewaat selon nit nga xam ne ay commission la yu bokk ci Touba ci kanam. benn mhm. bu ci nekk ci ba mu tudd ak la liggéey dañoo gis ne yooye dañoo am liggéey bi ñu soxla ci loolu. Mhm. ñu wutal ko mu doon ay seen i turandoo. Mhm. biir relation extérieure. xam ne ay sous commission la ñu tudd mu nekk juróom-ñetti sous commission juróom-ñetti sous commission yooyu benn bu ci nekk ñaari nit ñoo koy jiite ñaar ñoo koy jiite nag muy. fukki ñaar fukk ak euh, ñeent. moo ñëw foofu des na ñeenti membres. Euh, ñeenti membres yi ci des mooy. Mhm. sous commission euh, continent yi. ah xam nga dañ koy wax léeg-léeg ne ñaari continent la. Mhm. muy muy latino ak euh, nord. Mhm. waaye dañu ko jàppee benn continent. benn continent. Mhm. Euh, ku ñuy wax soxna di kel kaw ba jàpp jiite ko. muy euh, Amazon. ay Fall. macha allah. di Fall soxna Diarra. dèjà. di di jëwriñ continental. continent wu Afrique. Serigne Fall Moussa. suñu mbokk mi wax ñu jiite ko. ak. continué wu Europe. Mhm. waaye mooy seen liggéey bi mhm. dañoo def Asie ak Océanie. Océanie waaw. ki mhm. euh, ñuy wax Serigne. Euh, Mame Balla euh, commission rurale nag. juróom-ñett. moo di commission sous commission sociale. soxna Rama Diouf. Mm-hmm. di ko fan la nekk moom. moom ma nga d' accord. ban réew la nekk moom Aliou italien d'accord sage que médiation ñoom ñi nga xam ne yéen a ngi tënk ndeysaan ñi war a taxaw Serigne Moustapha Mbacké Serigne Mansour macha allah moom ngi fii ci Touba ak yeneen boo demee ci continent bu nekk dafa koy fekk ay eh, coordinateur mhm. loolu xam naa tur eh, xaadim ñu ma mhm. gën a eh, yaatoo mhm. ci biir liggéey boobu daal ak taxawaay boobu ak nag jëflante koo xam ne ak jàppalante koo xam ne dafay dox ci diggante mboolem commission yi nga xam ne. Mhm. dañoo seq liggéey bi ak relation extérieure. Mhm. te benn bu ci nekk ñu amaat ci biir lu ni euh, mhm. ñoo taxawal wala ñoo taxawee. liggéey bi jotaay bi macha allah. Euh, Serigne Moustapha communication bi nga xam ne mooy communication bu mag bi. waaye ci biir euh, sous commission bi nekk ci biir relation extérieure Serigne Modou Diouf. nekk fa ak soxna Maguette Diarra. macha allah ak ñañ fa nekk. ko taxawee taxawaay bu ama am solo. Mhm. Serigne Modou Atta Seck ci wàllu mastication bi moom Serigne Fallou Badiane. Mhm. nga xam ne ñoo koy taxawee. macha allah loolu xam ne. Mhm. liggéey bi kenn bu ci nekk. dañu la li ñu doyloo. ba jox ñu ne lii leen bëgg. seet leen ngeen koy defee. ndax Touba ca kanam loolu daf cee am. Euh, daf ci am day am liberté. ci jëfandikoo li ngay. liggéey bi liggéey bi li ma leen liggéey. waaye nag na bañ a génn saa yi nga xam ne ak taxaw taxawaay bi nga xam ne dañ génn wax ne lii ci la liggéey bi. jaarale ko. loolu nag kenn ku ci nekk. moom it da nga koy liggéeyee. Hmm. Hmm. ndax Diaspora dafa am euh, spécificité bu ci nekk. Hmm. moo di euh, booy xool léeg-léeg waxtu bi sax du bokk. dëgg la euh, contexte yi. duñu bokk kon nag su fekkee ne da nga bëgg tuñ wenn liggéey wenn xeetu liggéey bi wala na sa genn ne nii di fekkee ne jàkka dafa nekk ci def liggéey bi duñ def pénc bi wala jumaa yow nga féete jàkka ji sow yow nga war a jaar jëm ci dégg la ki nga xam ne ni jàkk ji sowul la ko tudd ko sow waaye su fekkee ne nag da koo bëgg a tënk dina yow mi nekk ci sowu jàkk ji ñëpp dañoo war a ñëw jaar si kaw mhm. waaye loolu ci Touba ci kanam macha allah mhm. commission bu nekk na ngay liggéeyee mhm. da aw yoon waaye da nga yoon yi xam ne mooy gën a baax gën a itam a yomb gën a méngoo ak la la réalité. Mhm. loolu it la diaspora bi di doxe macha allah muy relation extérieure. Mhm. kon nag loolu ñu ciy sant bu baax a baax. Mhm. yu baax yi. te ni ma ko waxee woon ci ñoom am na ci loo xam ne xëy na mën naa koo gis. waaye na ma koy gisee bu bokk xëy na mën na ko sol si dafa mu teg si. su boobaa nag ñoom ñaar ñi damay wax ne. kenn nit ñoom bu dencal mukk loo xam ne day tax. gën a baax mhm. a yeexal di mhm. loola nag euh, euh, santaat euh, yàlla di ci santaat Serigne Touba. Mhm. ndax xëccoo ak xarab wala xal ñu koy waxee. ndax bu ma sax xal. waaye ak njëwriñ lay doon. wala. fii kat dañ fi liggéeyal sëriñ bi. Hmm. loolu amul ci ci liggéey bi. ndeysaan kenn ku ci nekk dafay mel ni sax des ca ginnaaw di bëba. Hmm. mooy koy gënal tuuti dàqal ko. Hmm. jiitu di di di di tëj. macha allah la sëriñ Mamour moom si rek ne am kilifa dañuy dàqal eh, nekk kilifa. ndeysaan ndeysaan loolu dafay eh, eh, kenn ku ci nekk. lu mu ci gis euh, lu koy war a defar du ca euh, xaar wala mu cay ragal ku ko ci yedd du ca bëgg it nag ku ko cay tagg hmm. li bëgg leen ci ñor rek mooy ñor ko ci ñëpp mooy rek ñu liggéey bi jaar ci yoon nañ fexe ba am résultat macha allah ndosa googu nag euh, dañoo toll ci di ko def doon loo xam ne système lay doon système nag ay jëmm ñoo koy tabax waaye jëmm yi dafay dem ba boo jëloon jëmm yooyu nga jël leen làq ci barab jël ñeneen ñu indi système ba day mën a continuer di dem. macha allah loolu fa lañ toll fu nekk hmm. hmm. bokk hmm. euh, yi nga xam ne. ñooy ñuy seetaan ci eh, Bichri TV ak eh, Touba Monde bi TV ci seen eh, émission bu am solo bi nga xam ne dafa jëm ci wàllu tubaa ca kanam ginnaaw bu ñu déggee sëñ naa loo kon gis nañu ne ci wàllu organisation diaspora bi juróom-benn fukki réew la ak juróom waaye dañ ko xaaj ñeenti continent loolu nekk xalaat bu am solo mooy séddale liggéey bi ci ñeenti parti benn ñaareel bi moom mooy. ñu gisaat ne euh, liggéey Touba ci kanam dafa séddale ko ci fukki commission ak ñeent mais xëy na yëpp nekkagul ne moom la ñuy soxla ci diaspora bi ñu tànn ci juróom-ñett yoo xam ne mënta ñàkk ci fi ñu toll mu dimbale Touba ci kanam ngir yaatal liggéey bi loolu mun nañ ci tàmbalee discipline ak programme suñ bo seen mbokk taalibe mii wax ak yéen ak ku ñu wax bëgg fàllu ñoo ko yore mooy ñu yore luy loi yi nga xam ne charte yi nga xam ne moo tënk ñi ne ci liggéey bi ñëpp loolu mënul ñàkk benn ñaareel bi mooy euh, communication sëñ Modou Diouf yor ko ak soxna Maguette Ngiraan nga xam ne Touba ci kanam fu mu egg sëñ laa wax na ko ci ay wax la tàmbalee woon kon loolu mooy euh, maanaam euh, baasu Touba ci kanam Modou juuf ak soxna Maguette Ngiraan ñu teg lan massification ku ne xam na ne liggéey bi fexe ba ñëpp xam ko tàbbi ci mooy liggéey bi sëñ Morat jiite ko nekk Guinée Bissau ànd ak sëñ Xaadim Badiane ban moo ci topp mooy social ku ne xam na ne dimbalante mooy liggéey bi soxna Ram moo ko jiite nekk Amérique ànd ak soxna Fatou Thiam bi nekk Paris ak soxna Alimatu Doucouré ñu ci def liggéey bu am solo ñu teg ci ban mooy SACE médiation sëñ Moustapha Mbacké Mansour ak sëñ Abdou Salam Faye bi nekk Allemagne ñoo ko yor mooy defaree diggante yi ba ñu mën a yéwénoo ñu teg ci sous commission bi ñuy wax euh, scientifique et culturelle moom la sëñ Maam Moroon wax léegi bu ñu amee 2 millions de murit war nañu liggéey ci ñu mel ni sëñ Tuubaa bëggoon ab murit mel ni mooy sifaatu sadiqil murit ñu liggéey kon sëñ Mayib Ndiaye Mayibul Xadim ak imam Ablaye Ndiaye ñu ngi leen di ci liggéey Nous ñu am benen sous commission bu sous commission des finances ku ne xam na ne koppar yi ñuy dajale mënta ñàkk ñu saytu teg ko ci yoon wi nga xam ne laaj lu ñu ko ñu xam Alassane bay bu Amérique jiite ko ànd euh, Abdoulaye bu ñu ci ñu euh, sous commission nga xam et évaluation xam nga ne aw doxalin am communication am massification am kuy am kuy denc koppar am kuy jàngale am kuy dimbalee laaj na koy natt di xayma yooyu ñuy wax yépp ndax dëppoon na ak charte yi tëral ne Touba Ca Kanam lay dox yaa wax léegi ne ak lu liggéey bi yaatu yaatu ak lu ñu am am autonomie du ñu génn mukk li ñu tëral ni loolu mooy yoon bi sous commission suivi nag évaluation évaluation boobu sëñ Aliou Dia moo ko jiite ak sëñ Ibrahima Amar da di def liggéey yu am solo kon mun nañ gis ne euh, du rek dañoo gis ne diaspora versé nañu 30 millions mbaa 26 millions waaye dafa am organisation dafa am méthode dafa am liggéey bu ñu liggéey ci suuf boo xam ne nii liggéeyu terrain bi mel noonu la mel te réew yu gën a sore barab yi gën a sore ba pare tukki daggit la ci mbugal ñu boole loolu yépp ak seenu njaboot ba pare mu amaat lu am solo mooy benn membre diaspora boo gis day dugal waa këram gépp sa ñaari waajur yàlla ñu dagaale say soxna ak say doom kon ñu bàyyi xel ci ne benn membre diaspora këram famille yépp lay dugal loolu nekk lu am solo loo xam ne Euh, dañ ciy bàyyi xel kon mel na ni leer na tey ci bopp ñu ñuy seetaan euh, Touba ci kanam diaspora bi fan la jaar dugg nan lañ ko dugalee ak nu mu taxawee ñëw nañ ci wàllu structuration bi ñeenti continent la léegi dañ ñëw ak sëñ Xaadim Caan ci tënk rek euh, lu tolloog juróomi minute tey yaa fiy teewal Baye sëriñ Gueye sëñ Maam Bala Samb soxna Dikel Thiaw Badiane ñeenti continent yi yéen li ngeen séqee nan ngeen di def ba tey biir continent yi ngeen nekk ngeen man di liggéey ak coordinateur yi nga xamné bu ndigal waccé ci kaw day ñew ci yeen ngeen wàcc ci coordonna ci coordination bi parce que tëralin tuba ci kanam wenn la tay suma bëggoon xam contenant yooyu nan lañu ñu seen liggéey ngir dama jox seen coordinateur coordonnateur lan nga ñu wax. Euh, alaykum jere jeuf seen Mbaye maa ngi rafetlu mbolem kaddu yi fi jaar euh, euh, muy lu am solo lo xam ni wax deug yalla lu nit ñepp wara baye xel la te am dar solo di wax seen bay mm-hmm. continent yi mm-hmm. dafa am solo lool ci liggéeyu Touba ci kanam rawatina diaspora bi mm-hmm. ndax ku nekk xam ne ne diaspora bi dafa am benn particularité boo xam ne nii dafa wuuteeg euh, ci biir dëkk bi ndax diaspora bi benn suuf commission la benn commission la waaye commission bu tënk soixante cinq pays la kon kooku il faut nga organiser ko wala boo ko organiser ko xëccëxoo dana am ci la kilifa yi am xalaat ne mhm. ci booba sëñ abo moo yoroon liggéey bi mhm. bi yàlla dogalee um, moom sëñ Modou mhm. de passage euh, bu état bi ci lan xalaat ne ñoom bu fekkee dañuy nekk relation extérieure doon ko ñett wala ñaar wala ñeent ñu bëgg di coordonner liggéey bépp dina diis te Touba ci kanam dañ ko war a yaatal ci lañ xalaatee ñoom ne ginnaaw sous commission yi nañ tëral ay continent uh-huh. continent yi seen liggéey uh-huh. mooy dañuy def facilité uh-huh. facilitation yokk ci di ñeneen yu am solo mooy comme dañuy am ay bloc yuy jógee euh, ci Touba ci kanam di dem ci ci continent ñeenti continent ci ñeenti continent yëpp il faut ñu organiser booba diaspora bi amagul sous commission finance commission finance bu mag bi rek ci la nekkoon. Hmm. waaye bi ñu xalaatee loolu yàlla dogal an njëkk ba ñu jox ko Serigne Pape Ciss. Hmm. ñu jiite ko def allah macha allah ñu ngi koy ziar yàlla dogal. moom hmm. moo ko joxal boppam ni ñuy wax Touba ci kanam rek. xëccoo ko moo dem ne daal man damay bàyyi keneen mu mu mu liggéey. ñoo dogal ma dem liggéeyal keneen fi mu toll. ci la euh, xel yi daje Euh, proposition sur abo daan mhm. ma joxe sous commission mhm. waaye euh, continental bi mhm. waaye bi ñu koy jox tamit dafa amoon solo parce que ni defoon comme Touba ci kanam dafa amoon finance finance bi tamit dafa am solo lool ci diaspora bi ñuy xalaat ne finance am na sous quatre sous commission yi nan fa dugal ñi nga xam ne nii dañuy bokk ci continent nga xam ne dañuy tiim liggéeyu tubaat ci kanam dara du leen um wañ mën a seere ñi nga xam ne ñoo ñoo nekk seen ginnaaw ñuy ay ay coordonnateur ak coordonnatrice Nous lan proposé euh, euh, comité directeur. Uh-huh. comité directeur uh-huh. euh, bureau exécutif valider. Uh-huh. bureau exécutif comité directeur finance bu mag commission asa fa ñuy carte et membre ñu fa section de fonds. xam nga loolu boo ko defee ci liggéey. Mhm. yow da ngay daal di progresser. Mhm. lépp loo xam ni defoo ko. ci yow la mhm. yàlla dogal nag ñu am benn autorité bu mag boo xam ne nii danañ mën a seere continent yi ci biir loolu lépp luy dem ñu jaarale ko ci continent bi muy quatre continent yi bu demee Amérique ñu jaarale ko ci comme si soxna dikkal moo fa nekk mooy def bon bi su ñuy def bon bi ni ñuy defee bon président képp koo xam ne nii soxla nga te nekk cim réew doon coordonnateur. Mhm. moom lan autorisé ñoom ñoo war a wut wala ku coordonnateur bi jox ndigal. Mhm. dalay am envoyé message bind. Mhm. lim soxla. ne lii laa soxla ci bloc lii laa soxla ci carte de membre. def date bi def réew bi. su la ko am waaye nga yónnee ko seen Mourtala Seck actuel président euh, su président sous commission. mu yo ba noppi dugal ko ci euh, su commission carte et membre. nit ñi xool ko. walide ko. seen Mourtala tamit buñ ko walidee mhm. yow ren bi ñu amee sous commission mhm. dañoo autorisé tamit ñu dugal ko ci sous commission euh, euh, diaspora bi mhm. ñu ngi nuyu de passage seen Alsaan Mbay ak euh, seen Siise mi ko yor nga xam ne ñoom tamit dañuy mën a mën a jël archif ci li nga xam ne nii day jógee ci bitim réew day jógee ci réew mi di dem bitim réew dana tax filtration du am te dana indi transparence boo xam ne nii noonu la ñuy liggéeyee nga xam ne coordonnateur bu soxla rek doo sonn ngay envoyé rek ci salon nag ñu xool ba xam yow est ce que war ngaa jot carte. Mhm. wala war ngaa jot reçu. Mhm. wala li nga yoroon est ce que wersi nga ko. Mhm. loolu lépp bonne nee foofu da ko xam ndax yaangi section de fond yaangi carte des membres yaangi commission finance yaangi diaspora lu mel non nak ci lan doxal ba diaspora bi alhamdullilah rabbil alamin ma ngi nuyu Baye Serigne gay allah di nuyu uh, soxna dikel Thiaw badian Baye Serigne gay na la ak mam Balla sam ak mam Balla sam wax deug yalla uh, avant mom uh, amadi wad mo yoron fofu waye Baye Serigne mom mm, wax deug yalla musta sens ginnaaw Dikal suñ bu sek mo yoron fofu waye ku ci nekk la nga yor mhm. ak la sa moroom yor mhm. dañ ciy déggoo di ci mhm. waxtaan mu doon organisation boo xam ne nii li nga wax la nekk Amérique moo nekk Afrique parce que Afrique tey am na trente deux am na trente neuf pays boo xoolee cinquante cinq soixante six yi am day mel ni day des trent six kon Afrique dafa yaatu kon il faut ñu def benn médiation def communication amoon nan yéene tamit fexe ba daayiray soxna jaare yi ah. ci suñ feuille de route bi yéen relation extérieure bokk ci la ci la ah. bokk ah. ak ñi nga xam ni jëwriñu Serigne Touba ya lan yu nekk ci réew mi ñu fexe ba ñoom ñu gën leen a jegal seen liggéey bi ci ci biir loolu sax ñeenti continent la hmm. kon naam dafa ëmb ay réew yu bari hmm. nan ngeen def ba coordonnateur yooyu hmm. euh, ngeen mën di déggante ak ñoom liggéey bi di mën a am fu muy jaar organisation boobu Lulu, eh, bi nga xamé né lolu amna pour ñu dajalé leen dañé ubbi ben groupe principal boo xamné ni dañ ko comme Afrique dañ ko tuddé euh, bureau Afrique. af continent bu Afrique continent bu Afrique. Mhm. continental. Mhm. légui ñu duggal ci mbooleem coordinateur ah bi ci duggalé coordinateur yi duggal ci yi. Mhm. ba nopi autoriser relation extérieure autorise réew mu nekk mhm. nga am droit dugal yeneen ñaar ñi nga xam ne nii ay ay lañ ci liggéey ba mhm. ñu mën a assister foofu macha allah loolu moo ñu may mhm. ñuy déggante nga xam ne complet du am ci Afrique ni ñu ko tënkee bi ma ñëwee avant euh, papsis bi mu fi ne continent yëpp nga la toogal waaw benn organisation wu kii waaw benn organisation bi lin lin lin lin jàpp ci ci organisation yi mooy am nan beneen bureau boo xam ne nii dafa nekk ci ci ci sous commission bi. ci sous commission continent bi. dañ ciy jël ñi nga xam ne nii jàpp na ne mën nañoo jàppale président bi. Mhm. ndax nit moom mënul toujours. Mhm. benn nga amat dot mbaa nga télé mbaa mhm. leneen. wala waaye nag ci biir loolu. boo ñëwee continent Afrique bi. dañ cee jël ay nit ñu am solo ci tubaa ci kanam. rawatina ñu nekk ci Afrique. toujours foofu danga nga da fi toogal. les quatre continents exemple naa ne yeneen continent continent yi moom ñu jox waaw ñu wut fay secrétariat mhm. secrétariat yi leen di may archives yi ñu mën di bind mhm. lepp lo xamni ni nii dotna euh, mhm. parce que weer wu nek bilan martial dañ koy def bo xamni bu weer bi dee dañuy sante secrétariat yi ñu bind li nga xamni ni mom lañ am ci weer bi comme ni ko section du fonds defee macha allah bu ko defee nak nga envoyé ko ci groupe bu bureau bureau euh, euh, finance sous commission finance uh-huh. bi nga xam ne nii moo ilif euh, lépp lu jëm ci wàllu finance di ko seere ci ci diaspora bi uh-huh. bu ko defee ñoom dañ koy archiver uh-huh. nga dugal ko ci tamit bureau bi nga xam ne nii ci ngeen nekk dugal ko ci groupe bu continent bi bu ko defee versement yi day lay may képp koo xam ne nii sa versement juumte am na ci danga koy mën a corriger avant ñu koy yóbbu ci secrétariat bi di ko defar ba koy def mu propre pour ñu yóbbu ko section de fonds. macha allah noonu la ñuy liggéeyee. ba nga xam ne nii euh, dañuy may lépp loo xam ne nii jóge na ci continent yi bu egsee ci Touba ci kanam. Mhm. ci section de fonds ak contabilité bi duñ ci sonn. parce que day fexe fekk lépp jag na. ba nga xam ne nii contrôlé nañ ko ci biir contrôlé ko ci biti ba lépp jag ba nga xam ne nii jafe-jafe du ci am. jërëjëf Serigne Khadim Thian mu mel ni bu ñu la déggee organisation bi am ci. Relations extérieure ci eh, continent yi day am bureau bureau continent ba coordonnateur yépp dañ fay ñu amaat bureau ci kilifa yoyu fay bu dara ñu ko ko mm-hmm. sous commission finance bi mm-hmm. ba bu ñu mm-hmm. organisation euh, bi am ci biir réew mi amna bitim réew ñuy Euh, juróom ba jàpp fukki minute moom moo des si waxtu bi dañuy dellusiwaat rek ci euh, sëñ Abo xam naa benn ñaari minute mu tënk euh, sëñ Mourtala comme commission sociale la dinañ ko jox juróomi minute su defee ñi ci desaat ci relation extérieure ku nekk jël ñaari minute ñu mën a tënk jotaay bi sëñ Abo ginnaaw boo xamee ne liggéey bi léegi weesu na fi nga waxoon fal nañu ay bureau am nañ sous commission liggéey bi yëpp nosu na sunu kanam lan ngay soñu mbokku taalibe yi ci diaspora bi taxawaay yi ñu war a am ba li ñu bëgg am ñu mën ko am parce que gis nañu ren taxawaay bu am solo boo xam ne am nañ ko ba tey jataay bii am nii grace ak liggéey bu am solo bu ngeen liggéey ba tey lu mel ni sous commission diaspora mën a am budget de fonctionnement boo xam ne dina ko permettre vraiment muy def liggéey ñu ngi wax ba léegi ne yéen a ngi en direct ak Bichri TV ak Touba Monde bi lan ngay dénk mbokk taalibe yi ci ay soññee. suñ mbay ñu ngi lay jaajëfal di di waa Bichri TV coono yi ñu jànkoonte diggante démb ak démb ci social bi ak démb ci journée bi ak tey jii di leen masa waaye suñ tubaab bi ñu liggéey am na fay. suñ Babacar Lo ñu ngi koy nuyu baax ci teewaay macha allah. Mhm. Euh, euh, bi dafa mel ne day mel ne daf wax ji dafa maanaam jëf ji daa jiitu wax ji. macha allah. Euh, nit ñi dañoo jug xaaruñ ku leen soñ ci liggéey suñ tubaab yi. li ci am solo mooy bu tegoo ci organisation yu leer comme ni ko suñu seexu naa mi leeralee. Hmm. Eh, li li mu koy waxee mooy système la parce que indi taxawal ko. Hmm. xam ne gëmul ne suñu seexu naa moom moom suñu seexu naa bu xëyoon tuba puus bu keneen ñëwee day yow rek continuer te mu jàll. macha allah loolu loolu loolu loolu loolu xalaat boo xam bu kawee la boo xam ne nii seexu naa bi ñu ciy dox. Hmm. ci waxu ko rek da cay def. ndax jotaay jotaay bii nii rek bokk na ci système bi. ndax. Euh, diaspora yàgg naa am waaye lu mel ni mi ngi soog a am. dëgg la. Euh, communication bi suñu Modou Diouf yor di jàmbaar. Mhm. convention bi ñu am am ko ak euh, Touba Monde bi. Mhm. si Cheikh Naam yi def ci liggéey bu am solo. Mhm. boo xam ne ni bu suufee la bu boo xam ne ni man du bëgg koy wax. dèjà dèjà waaye gannaaw jotaay bu amee ci moyen boppam la. effectivement ci ci ci démb yéen moo leen jox otoom. ñu ànd ci liggéey bi ba tey jii ba tey jii lépp ñu nekk ci koy Mm-hmm. Euh, def na njiit mm-hmm. kon liggéey baa ngi noonu macha allah Mor Diouf nga jóge ba Gàmbi li mm-hmm. nga ñëwee noppalu woo tëddoo nelawoo parce que démb ak démb ak tey ji ñu ngi nii ba énergie jot na fi toll nii macha allah macha allah liggéey bi waaye xam ne ñun ñi ci nekk kenn la ñu liggéeyal mu suñ am na fay bu ñu fayee rek danañ fàtte coono bi ah, ah, ah, allah bu baax di sant xat na waaye liggéey baa ngi noonu rek dina am yeneen i jitaay liy ubbitale rek mais incha allah dinañ wéy ci jitaay incha jëf jërëjëf Serigne Abo Bousso nga xam ne moom it euh, ni ñu koy waxee rek euh, njëkkee na liggéey bi waaye nag ànd bu rafet la ànd ak ñëpp jiitee ab commission ñu jëlee ko ci yow nga ànd ak ñeneen ba del siwaat bokkaat ñu ko jiite loolu jëf ju rafet moo koy may sëñ Modou Seck sa kàddu yu mujj yi ngay dénkaat mbokk taalibe bi soñu leen euh, ci Touba ci kanam diaspora bi lay doon waaw sëñ Baye cant rek lay moom la ñuy njëkki hmm. ak jaajëfal jaajëf na gàtt na lool waaye ko jëfal dis ko ko wax kon ñu ngi jaajëfal monde bi yëpp hmm. adduna bi yëpp ñu ngi leen di jaajëfal waa diaspora bi hmm. di ko jaarale ci sëñ seexu na mi it di ko sant bu baax a baax ndax uh, liggéey bi taw na ko taw boo xam ne nii uh, dimbaleen lool dimbaleen lool ndax yàlla doo dafa dogal. Mhm. li muy xat xat xat. Mhm. jox na ko temps. dëgg ndax man léeg-léeg mu wax ma audio boo xam ne nii déglu na ko damay yéem ci ojo yu bari ci réew yëpp bu ci nekk bàyyi na ko xel di ko di ko di ko di ko di ko topp. ndeysaan ah, ca na ko sëñ Abou Bousso mii doon defee. Mhm. ba fi nekkee waaye fa bàyyee rek foofu sëñ bi jóge kon ñu koy sant bu baax. macha allah yow mii tamit am na loo xam ne faaw sant la ko mooy sa dëggu. ak sëg te doo far kenn te fonk liggéey bi guddi gu jot yaa ngi ci bëccëg yaa ngi ci guddi yaa ngi ci waxtu bu nekk fu ñu la laa jógal nga jóg daanañ toog ba heure ba mu guddi maag sëñ bi ñu taxaw ne ndàngam xew na euh, sëñ bay war na koo fekki ñu woole ci guddi gi da la ñàkk ñëw ca duñ xalaat ne fan nga nekk ci lan lañ la fekk dara dañ lay wax jógoo rek nga jóg hmm. kon ñu ngi lay sant bu baax te di la jaajëfal di la ak sag dëggu ak sag wér ndax euh, li may def ak sëñ laat maam moom mii dinaa ko def ak moom mooy léeg-léeg ñu daje di xuul di werante di werante di werante ba yàgg ma ne ko sëñ Bay mu ne maa ma ne ko jubóo na yow ci ñàkk jubóo nga xam ne day jàpp lam jàpp ma jàpp nga xam ne bu neex a neex a neex ba mu bàyyi lim gëm waaw du man tamit la ma gëm ki nga xam dañuy discuter ba dëgg feeñ su ko defee bu benee sax ñu mottali ko ba dëgg feeñ ndax moom nanguwul loolu faaw ñu topp ko ba dëgg feeñ macha allah su ko defee nag loola loolu lu am solo <laughs> ndax amu ci xarit amul xarit ci dëgg nun ñi ñëpp kenn ku ci nekk xam nga ci moom loolu mais buy wax ak yow lam gëm la lay wax kon yow ñu ngi sant bu baax gannaaw bu ñu santee sëñ Mourtala mi nga sant sëñ Xaadim mi moom ci jàmbaaram léegi nag liggéey bi li ñu mooy nun dañoo amul lu dul amul lu dul sëñ Touba sëñ Touba nag li ko gënaloon ci àdduna moo nga xam ne moom la gënoon a bëgg mooy dëkki Touba loolee mu bëggoon nag moom loola laa xam ci lu bëggoon tam te amuko ko. Mhm. waaye noonu yàlla wërsëgale nun loolu. macha allah macha allah kon nun bu ñu wërsëgalee loolu dañ ko war a xam nag. ndax cër. lu rii rëy rëy bu ko yàlla tey sa loxo te xamoo ko. Mhm. doo ko jëriñoo. dëgg la kon nañu sant yàlla te jéem koo xam. Mhm. te xam ne dëkk bii sëriñ bi nee na woon la fi àjjana. Mhm. jaamu yàlla ajuma ko ci sa jaamu yàlla. dëgg la waaye sa dund it ajuma ko ci sa liggéey. ما شاء الله يعني أنا ما شاء الله ما شاء الله توبى لابد مريد صالح لهم بخدمه او بحب او هديه الحمد لله في لا اجي تبارك الله فونك لك دكم te lu luñ am indi ko fi. Mm-hmm. barab boo xam ne nii boo booy dund bëgg nga fa am kër. Mm-hmm. boo faatoo fa nga bëgg ñu suul la fa. Mm-hmm. boo demee ba retraite fa nga bëgg dëkk yi. lu koy jagal war nga caa taxaw. macha allah te kon nañ jóg taxaw ngir lii ñu bëgg ci Touba. ca Touba ca kanam lañ ci dese ci loo lu ñu yaakaar ne mën na ko faa yóbbu. ndax kilifa yi ñuy jiite musuñu koo am ci mbooloo. de déedéet kilifa yi jiite tubaa ca kanam. maanaam lafi fi nekkoon jógu fi tubarkalla xam nga lan la Touba ca kanam wuuteeg ñeneen hmm. ña ko jiite ñoo wuute jërëjëf ña ko jiite ñëw wute xam naa foofu la sëñ Mat Seck di e, wàccee kàddoom dañuy am yeneen plateau yu ñuy ñëwaat ci kanam Xaadim Thian dangay ngay tàggatoo ci benn jàpp ñaari minute ñu ñëw ci sëñ Mourtala mu résumé ndax e, bis bu rëy bi ñu doon def e, fan yi passé muy lancement wu social tabaski ak résultat bi bàyyi ko ci social bu korité gi dina dinañu ko tënkal rek ci juróomi minute wala ko defee sëñ Cheikh Naalou nag en tant que président commission relation extérieure mom moy tëj jotaay bi seigne khadim lan ngay tàggatoo ak lan ngay denk bokk taal bi muy président continent et coordinateur assalamu alaykum wa rahmatullah sëñ Mbaye ñu ngi lay nuy di la siyaare di rafetlu nak émission bi ak jotaay bi ci sante yalla bu baax nak ndax jotaay bu jafé la wax jotaay bo xamni dang ko bokk ak say kilifa da say wax day dis lool nga wax ja waye ni nga organiser débat bi wax deug yalla amna solo ñu ngi lay gërëm di la sante di gërëm mboolem ko xamni ni nii fi rawatina seen cheikhuna mi nga xamni ni moñu jité té te doon ko xamni ni wax deug yalla ku neexa andal la di gërem seen abo ak serigne Mut sek ndax ñom dama dama leena xam dañe bokk ak man ni ni seen cheikhuna mi bokk ak man ak seen murtala mi ba nopi ma doon ko xamni ni dama nakari dara te xol lool lepp luma def rek neex na leen ak mbaax la ak seen ak oyof ndax ay kifalan té yalla dogal na ñu ubbil ma seen kanam ñemel ma seen bop di gërem mboolem waa continent yëpp ñi jiite continent yi di gërëm nag ñoo xam ne nii personnellement il faut ñu gërëm leen ci sous commission Afrique ku mel ni seen Seex Fall ku mel ni soxna Maguette Ngiraan ku mel ni euh, euh, euh, seen ba Saliou Ngom mhm. ku ci mel ni seen Sidi Samb ñooy secrétariat bi waaw waaw léegi da ngay gërëmaale secrétariat ñeenti mboolem secrétariat mboolem continent yëpp mhm. ak ñi nga xamné ni timit ño yor secrétariat diaspora bi. macha allah eh, di gërëm ñëpp di siar ñëpp. Mhm. di rafetlu and gi. Mhm. tay ñaan suñu borom fi ngeen jëmee Touba ci kanam ñu àggale ko ci jamm ak salaam. amiin ci darajay cheikhul khadim na dafa des da doon yaakar yo xamné ni yalla bu ko yalla tass ñi ngi gërëm ñëpp di siar ñëpp. di wax alaykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah mbokk ñuy rek ci batay ci Bisri TV ak Touba Monde bi ñu ngi and ak yeen ci seen euh, deuxième plateau boo xam ne ñu ngi koy amal ngir fas yéene euh, saasu na rek diaspora bi di gën a taxaw ci liggéey Cheikhul Khadim dañu jox kàddu gi moto Moutada Mbacke moom Serigne Abdoul Fatah social Ramadan bi euh, bëggoon nañu xam li nga xam ne moom ngeen ci dajaloon ci ay koppar jébbal ko mbokk yi ak it lim yi nga xam ne ci ay famille taxu ngeen leen ci tënk waaye tabaski bi tamit ngoon leen lancé barki démb bëggoon nañu tam nga defal ñu point bi bu réew mu ñu mën a nekk ci biir réew mi bitim réew doon joxe seen ñaari téeméer am na fu ñu ko tabal tey Touba ci kanam mooy laaj lu ñu man waaye def ko fu ñu xam sañ Mourtala. waaw jërëjëf sëñ sëñ bay ñu ngi lay siyaarewaat bu baax tey rafetluwaat jotaay bi xam naa bu ñu bëggee wax li nga xam ne moo jëmoon ci eh, événement yi nga xam ne ni moom la social def ci at mi te am ñett yu ci ñaar yu ci weesu ak benn boo xam ne ñu ngi ci. Mm-hmm. Eh, dañuy ñëw rek ci social bi nga xam ne moom lañ doon def ci ci ci ci ci ci koor koor gi. Mhm. Eh, social bi nga xam ne moom lañ doon def ci koor gi eh, li nga xam ne moom lañ jotoon na am ci ay koppar ëpp na soixante quinze millions. macha allah ëpp na soixante quinze millions ci ay koppar. Mhm. bu ñu li nga xam ne moom lañ ci am lépp mu ngi doon soixante soixante seize millions neuf cent cinquante cent quatre vingt. Mhm. li nga xam ne moom lañ dépassé woon ci social Ramadan bi nga xam ne mooy journée sociale Ramadan bi. moo ngi nekkoon soixante dix million six cent cinquante deux mille deux cent cinquante. Uh-huh. ñu ngi ci jàppale woon nag ci ay jaboot lu toll ci euh, deux mille sept cent personnes. macha allah deux mille cent familles lañ ci jàppale woon. Uh-huh. ak itam euh, lenn ci bërëb yi bërëb yu sell ma ne sa ko tuddee ay daari kaamil lu mel ne daari kaamil yi njaareem. ak daari kaamil ji nga xam ne ni moo nekk. Euh, daarul moxti uh-huh. ak daaru minan ak daaru xuddoos Euh, daari kaamil ji nekk sëñ Sohaybu uh-huh. ak daari kaamil ji nekk euh, Daaru ak euh, Mbàkke Xewar uh-huh. yooyu yëpp ay daari kaamil yu ñu demoon uh-huh. loo loolu lépp nag boo ko boolee ak jëloon nañ ci tamit ay malade yoo xam ne dañ leen a jëloon ngir jàpp leen ci wàllum wér gu loolu lépp mooy soixante-dix millions six cent cinquante-deux mille deux cent cinquante bi nga xamee ni ñëw nañ ci soo korite gi tamit dañoo defoon recensement ci comme ni ñu ko defoon ci ci koor gi ci biir dëkk bi ak bitib dëkk bi mooy biir corniche bi ak di wër corniche bi. Ah. loolu lépp bu ko boolee ñu ci jotoon a am ñu ngi toll ci eh, sept cent quatre sept cent quarante quatre famille ñoo ci jotoon a am. Ah. liñ ci jotoon def mooy seize millions huit cent soixante trois cent. Ah. moom la ñu jotoon def. xam naa damay profité waale rek ci defaale li nga xam ne mooy situation semestrielle bi ci traitement cas sociaux yi. macha allah bi nga xamee ne mois de janvier ba fii ñu toll. Euh, li nga xam ne moom la sociale di yëngu. Uh-huh. mooy jàppale nit ñi ci wàllu wàllu ñi nga xam ne ñoo am jafe-jafe ñu koy wax soutien financier. Uh-huh. jot nañ cee def cinq millions cent quarante quatre mille cinq cent soixante quinze. ci weer ah. maanaam lu tàmbalee ba fii laay wax. macha allah li nga xam ne moom lañ jot def ci traitement maladie. Uh-huh. ci bi lu tàmbalee janvier ba jub tabaski événement tabaski bi moom bokk ci. mi ngi doon sept millions quarante mille huit cent vingt huit. macha allah euh, barab bu Kanam bi. ku fa ñëw ngir diggante ba ngay toog di xaar ak yooyu leen la fay jox ngir nga mën koo jàppale loolu cinquante quatre mille huit cent cinquante mhm. li nga xam ne moom la ñu barke barkeeloo ci bërëb bu sell bi te weer wu nekk du sori ay cinq cent soixante cinq mille léeg-léeg mu dem cinq cent quatre vingt mille mhm. ñu ngi ci defagun deux millions trois cent trente eh, ñi nga xam ne dañ leen di traité xam nga ci biir ñi wéra am na ñoo xam ne nii ay analyse lañ soxlawoo am na ñoo xam ne dañuy dialysé am na ñoo xam ne day opération lañ soxlawoo am na ñoo xam ne dañoo am euh, yàlla euh, cancer wala soxlawoo ay sciences yu demee noonu. Uh-huh. bokkut ak ñi nga xam ne nag ñoom loolu lépp it soxla soxlawuñ ko waaye li ñu soxlawoo mooy ordonnance. Uh-huh, uh-huh. loolu tamit dañoo am ay partenaires ci ay pharmacie yu nekk fii yoo xam ne nii ku am wàllu ordonnance te tële boo ñëwee buñ xoolee ba jàppale ne war nan la koo kii foofu lan la yebal mhm. liñ jot a def ci ay ordonnance mu ngi toll ci deux millions deux cent soixante deux mille cent daanaka léegi nag bu njëkk daraan dem ba ay huit cent mille ci ay ordonnance waaye léegi dañ ko limité ci cinq cent mille par mois nga xam ne ordonnance yi moom dañ koy jël ba cinq cent mille eh, ki nga xam ne nii dafa bëgg ko jàppale ci siège Touba ci kanam bi entre neuf heures ba douze heures ci leen di jël cas yi nga xam ne nii moo ñoo am ay mhm. nga xam ne dañuy def ay visite malade ak ay visite de yooyu li joto def ci ay transport mu ngi toll ci cent six mille uh-huh. yeneen dépenses yi muy téléphones yi ñuy jënd di ko wooteek ak yu demee noonu ak jégali bagage ak fay éminé bar uh-huh. mu ngi toll ci cent dix mille uh-huh. euh, ne bi nga xam ne moom lañu doon def ci Ndakaaru ñu ngi ci def trois cent deux mille deux cent actuellement nii fii ma toll li nga xam ne social defagun na ko mois de janvier boo ci génnee tabaski gi mu ngi toll ci cent cinq millions trois cent trente deux mille huit trois moom la social defagun macha euh, ci tabaski gi mun xoolee li social defagun fii may waxee nii toll na ci vingt trois millions et quelque ndax tabaski gi dañ koo xaaj ñaari xaaj benn xaaj bi am na ci ñoo xam ne nii dañ fay ñëwoon soxlawoo ay euh, toilette ñenn ñu soxlawoo ay néeg ñenn ñu soxlawoo am paj ñooñu li ñu war a def ci ñoom douze millions et quelque la. macha ñi nga xam ne dañuy sàkku dañ leen war a jàppale ci wàllu luy dem ci kër la wàllu xarag yooyu loolu jëlagun nañ ci suba deux cent cinquante huit personnes famille yoo xam ne nii defagun nañ ci lu tollook onze millions sept cent et quelque. macha allah euh, bokkut ak nag yi nga xam ne def defaan nañ ko ak tiis yi nga xam ne dañ ko jëndoon jox association tailleur yi mu toll ci deux. deux millions cent soixante quinze mille. Uh-huh. ak yëre yi nga xam ne nii bokk taalibe bi dañ koo dajale. tey ci suba bi may may xëy li fa liñ jotoon a am ci yére yu ñaw ba noppi ëpp na trente mille yére yoo xam ne dañ koo ñëw ba noppi loolu nag boo ko comparé ak daaw day mel da koo triplé ndax daaw ñu ngi amoon treize mille cent trente neuf yére mhm. li am ci yére yoo xam ne ñëwaguñ ko barki démb six cent un la tolloon waaye buñ ci boolee tey ëpp na mille fi mu toll nii eh, nga xam ne benn bii ma lay wax nii soo dugalee Eh, tabaski ci lii ma wax nii. Mhm. jamono bii day mel ni social dana àgg ci cent trente millions ci mois de janvier ak léegi. te boo xoolee li social defoon daaw ci at mi yëpp cent quarante huit million ak quelque la woon. Mhm. loolu nag da gis ne mbirum sëñ bi ni muy ni muy ni muy ni muy ni muy jëmee kanam. waaw boo xoolee social dama daan deux mille dix neuf. social man may ñëw social. Mhm. li ma li social defoon ci at mi yëpp treize millions trois cent vingt neuf mille la. waa 2019 moom 2018 waaw man 2019 laa ñëw waaye 2018 13 millions 329 mille social defoon uh-huh. bi ma ñëwee 2019 li ñu def ci at mi yëpp 36 millions la et quelque 2019 waaw 2020 li social def 148 nga xam ne ëpp na euh, triplé na 2000 2019 uh-huh. waaye boo xoolee situation bii nii may wax nii 135 millions te amagun te amagun juróom benn weer yi jeex juróom-ñaari weer amagun ko uh-huh. kon loolu day wane ne loolu ñuy wax rek li sëriñ bi eh, suñu borom baaxoo jëflante ak sëriñ bi nga xam ne tayam ju nekk day gàccal ëllëg uh-huh. kon nag ci kaw lool la ñuy sant bokki taalibe yi nga xam ne ni jamono ju nekk ginnaaw bu ñu joxee seen ñaar téeméer par uh-huh. lu ñu man ñu ngi koy def ci social bi ñu ngi leen di sant bu baax baax uh-huh. di jël cant ki nag di ko jaarale ci njiitul su commission sociale bu diaspora bi di soxna Rama Diouf ak mbooleem soxna yim àntali yëpp social nag buñ koy wax danañ sant suñu bokki taalibe yi ñu góor yi waaye nag danañ soxna yi ak cant. Mhm. bu wér a wér a wér ndax bu ñu demoon ci yére yi nii eh, keroog la neuf bi ñuy xool situation yére yi bi muy doon vingt huit mille yére. Mhm. dix neuf mille et quelques yëpp yére jigéen la maanaam deux mille deux mille cinq cent quarante la ci ay góor joxe woon. li ci yére jigéen la. te bis jamono ju nekk noonu lay demee. maanaam mhm. lu social am bu dee téeméer a juróom-ñett fukk mbaa nangam jigéen ñoo ko joxe. ba ci ba ci koppar yi sax. li ci jigéen ñi dugal moo ëpp li ci góor ñi góor ñuy dugal kon ñu ngi sant jigéen ñi bu baax a baax waaye eh, di sant tamit góor ñi ndax eh, bu ko jigéen ñi mënee dafa fekk ne góor ñee leen jàppale di sant waa relation extérieur bu baax a baax eh, sëñ sëñ Modou Seck mi ñu ngi koy sant bu baax ndax soxna Rama Diouf mi nga xam ne moom daan tudd si su commission diaspora bi moom mi moo ñu moo ñu boole woon ak moom mhm. di sant sëñ Cheikhouna Lo bu baax sañ sëñ Ebo sëñ Xaadim mhm. di bëgg ci jataay bu baax a baax mhm. di wax rek ne commission sociale moom mi ngi noonu di ñaan itam eh, liggéey bi benn la liggéey bi Touba ci kanam du ñaar benn rek la uh-huh. eh, kum soob man ngay coobarewu sax di joxe ci social te doo bokk ci Touba ci kanam am na koy def uh-huh. waaye social ci boppam day massifier ndax uh-huh. gis naa ne bari na ñoo xam ne nii eh, daanañ joxe ci social te mosuñoo joxe ci Touba ci kanam yaakaar naa mën naa tudd nit koo xam ne ni joxe na mat téeméeri million ci opération yi defar yoon yi te lu ko jiitu mos a joxe ci Touba ci kanam te daan joxe ci social bi te man maa demoon di ko leeral liggéey bi mu xamal ma ne ma social bi moom mën na ciy jàpp te ak ñeneen ak ñeneen yoo xam ne xëy na boo limee ñoom mën nañoo bañ a mën nañoo xam ne yoom la waaye bu doon ci wéeta naa mën a tudd ay nit ñoo xam ne li ñu dugal boo ko globalisé ëpp na te mu njëkk ci social donc lañ doon joxe eh, li ñuy ñaan nag mooy ginnaaw dañoo bëgg ñaari liggéey yëpp di dem mhm. kuy bokk ci social bi tamit ñu ngi lay ñaan nga dagg carte de membre Touba ci kanam mhm. di cotiser weer bu nekk 1000 francs ba noppi loo man ci social bi nga di jàpp ndax ëmbatoo sas ci kaw loolu tamit ñi ngi sant Cheikh Mamadou ci ñi gën a jàppale so commission sociale ci la bokk. benn jëf ju ñuy yëkkati te du ci dugal loxoom amul. Mhm. social koor gii weesu gis ngeen ne joxe na ci lu tolloog téeméeri bari koy dugub ak téeméeri bëri koy ceeb. social tabaski gii ñu toll joxewaat na ci téeméeri bëri koy ceeb ak téeméeri bëri koy dugub. Mhm. màggal ga itam basang yi même su ma su ma nekkul ci dëkk bi sax sëñ bi da koy jënd facture ba turam lañ ciy def. ma téeméeri bassin yoo xam ne da koy barkeeloo te un million et quelque la koy la koy jënde uh-huh. bu bokkut ak nag yeneen yi nga xam ne nii moo moo ngi ñëw di bàyyi ko ci moom waxtu bu nekk kon daal ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax rek ne eh, laataa ñuy doon membre social naka jekk membre relation extérieure la ñu woon te ba léegi ñu ngi ci biir lépp lu ñu man itam ci liggéey bi gën a yaatu ci bitim réew incha allahu rabbi danañ danañ ko danañ ko def ndax liggéey bi du jataay bi mën naa jàngate mhm. ndax sëñ Abo mii moo jiite woon relation extérieure mhm. sëñ Cheikhouna mii eh, moo ko jiite léegi sëñ Abo toppaat ci moom mhm. sëñ Moussa Amar jiite woon relation eh, commission sociale eh, léegi mu toppaat ci ñun boo demee ci sous commission diaspora bi soxna Kumba Diop ma ko jiite woon topp ci soxna Rama Diouf day mel ne loolu lépp la lool la loolu la Touba Ca Kanam gépp war a mel ñu xam ne mbir yi du ay daraja yu ñuy xëccoo ndax ku ci nekk daraja ja nga war a am moom suñu borom defal na ko ba noppi ñu jàpp ne lii du ay privilège du mm. ay neexal yoo xam ne nit ki da koy ndamoo wala mu koy bàkkoo mm. waaye ay responsabilité la képp ku mu nekk ci yow ba mu yàgg ñu ne la euh, dañoo bëggoon sa mbokkum diw wuutu la ci drapeau bi mhm. yow li la war a yitteel rek mooy liggéey bu mu laal suuf nga yemal nekk ci kanam ak nekk ci ginnaaw mhm. ñu ngi sant ñëpp tey gërëm bu baax euh, waa Bichri TV ci mhm. seenu jàppandal comme noonu ko waxee ak Touba Monde bi TV euh, barki démb ci journée sociale bi ñoo ñoo ngi ànd woon ak ñun te gis nañ parce bi ngeen ci def ñu ngi sant bu baax baax te jamono ju nekk ñu ngi gis ci ñi ngeen yaatale mbiri sëriñ bi rawatina ci lu mel ne kuréelu Touba ci kanam ak ak mm-hmm. yeneen yi nga xam ne ñu ngi jëm ci lislaam mm-hmm. di ñaan sunu borom dëgëral leen asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf sëriñ euh, Mourtada Mbacke moom sëriñ Abdoul mm-hmm. mënul woon ñàkk euh, yaatal gi ak leeral gi am ndax xam ngeen ne euh, social ramadan ci biir koor gi la social korité social tabaski social màggal mënta ñàkk loolu waaye lii jotaay yu ñu tàmbali la incha allah ci kanam dinañ wéyal jotaay boobu dañu jox sëñ naa loo Ngaabu rek mu tënk nag jotaay bi ndax gis nañu ne liggéey bi comme ni ma ko waxoon sànq diaspora bi am na dem na 65 pays am na huit commission am na ñeenti continent organisé noonu lépp luy dugg ak lu ñëw fi muy jaar léegi nag dañ ko yokkul yaa yi ren dañu gis ne Touba ca kanam diaspora bi muy relation extérieure yàgg nañu bëgg communication bi gën a yaatu waaye ku ne xam na ne Touba ci kanam ni muy doxe mooy mbiram ci wàllu koppar yombul loolu nag ci sa teewaay ci sa kilifteef yàlla dogal na ren euh, ñu am lim bu toll ci dix millions cinq cent mille boo xam ne bit sa de fonctionnement la jëm ci wàllu diaspora bi loolu dañu la ciy jaajëfal euh, di la euh, laaj nag liggéey boobu jubluwaay bi lan moo tax ñu war a génneel toll noonu war ko sànni ci dugal ko ci diaspora bi ak it lan ngay dénk mbokk taalibe ci liggéey boobu ñu war koo gérer muy section boobu nga xam ne moo jëm ci wàllu 10 millions 500 mille. jërëjëf Serigne Mbaye Tane jërëjëf Serigne Mourtada ci leeral yu am solo yooyu waaye Touba ci kanam dafa am eh, lu ci nekk mooy xaalis bi dajale ko moom eh, dana dana dana dana jàppandi. waaye li ko ciy génne it loolu moom bu xasee dugg day mel ni la sëñ Abdoulaye waxoon ci téere bi la woon bu wàllu dugg moom mel ni murit bu ñu indi Touba rek sëriñ Abibu yàlla na ko fi yàlla yàggalal te mu ànd ak wér waaye loolu it dafa xam responsabilité bu nekk ci aw bu ci kawam mm-hmm. te moo di ne lii kat murit yee ko dajale mm-hmm. am fu ñu koy jëmale eh, du ab yeexaay waaye ngir gën a wóoral lay doon. Mhm. loolu kon moo taxit day mel ni sociale tamit euh, procédure d'urgence lay mhm. doon. Mhm. boo xam ne mooy tax moom it euh, lu ci bari ci la cay aju. Euh, dafay mel ni lu beru. waaye nekkut lu beru. waaye dafa am yoon wu gën a gaaw wuñ koy jaarale. ba buñ ko dajalee. ña ca ña ko ña ko yeeyoo. man koo jot ca waxtu yañ ko war a jote loolu nga xam ne nag mooy budget wu diaspora bi. Mhm. wala boog relation extérieure. Mhm. ndax euh, dafa bokk ci li nga xam ne mooy doxal Touba ca kanamit mooy kilifa yi dañuy diisoo. Mhm. Euh, saa bu jël ay décision jotee nag ñu jël seeni décision. Euh, kenn ku ci nekk ndam yàpp ne nii mooy doxin wa noone lañ leen bàyyi nga xam ne lépp dafay am transparence leer. ba noppi it ñu jël ci seeni engagement ndax nit ki boo ñëwee na ko defal lii eh, mën na caa bañ gis boppam waaye su fekkee ne nee nga ko xoolal ni nga mën a doxe su boobaa dootoo ko tënk ci eh, fu yées fa mu naroon a dem te mën naa am fa nga ko doon tënk dana am dem fu ko gën a kawe loolu nag eh, daf doon yeex lool te dafay faral di am ne xaalis du jóge Sénégal moom loola dootu génne tuubaa di dem ci bitti loolu nag moo tax euh, dix millions yooyu. muy uh-huh. budget boobu nga xam ne sax dana ci xaw a euh, doy waar lool. Uh-huh. waaye nag ginnaaw ab tàmbali la. Uh-huh. loolu jàpp naa ne dina am lu mu man ndax it bokk yu baax yi di lu mel ni Bichri TV ak Touba Monde bi. su fekkoon ne dañu leen di jël di leen rémunérer ci. loo xam ne lu lu lu anama ana man anaman la mm-hmm. kon jàpp naa ne loola dana ca réer ak a feeñ waaye naka jekk ñoom dañ daan doxal liggéey bi mm-hmm. ci di ko doxal te booba sax dañ daan jaayante ni nga xamante ne ni la ñi nekk ci biir Touba ca kanam di jaayante mm-hmm. ndax ñoom dañoo bokk ci biir Touba ca kanam kon nag loola noona rek mooy liñ koy liñ koy doxale te Euh, Serigne Moustapha mi ngi fi di yore communication wu wu. Euh, Touba ca kanam mhm. euh, léegi nag ci biir. li nga xam ne moom la ñuy war a euh, jëfandikoo fii ci biir dëkk bi. Uh-huh. ak biir réew mi. Uh-huh. loola mën nañoo wax ne la koy nattal sax. Uh-huh. moom it dafay doon loo xam ne da cay kepp. te procédures yi léeg-léeg mu daan yeex. loolu moo waral lii rek waaye doonut ne euh, lii dafa beddiku. wala dafa beru. waaye euh, sotti ci la rek. ak def ci. lii firnde ji mu ngi nii. su ñu nekkee ci biir. Mhm. lépp loo xam ne ni ay éléments la yu ñuy soxla. Mhm. Euh, te it mu wane disponibilité am. Mhm. muy ñëpp ñoo xam ne ñu ngi fi. kuñ ci soxla. bu fekkonte ne tey jii yow mi am nga ngànt. Euh, mu yebal Serigne Cheikh Amar mu ñëw mu toog fi. wala mu yebal keneen koo xam ne dina mën a ñëw toog foofu. moom ci jëmmam mi ngi nii toog ànd ko ak ñun. kon loolu dafay firndeel rek ne. Euh, yëf yi benn la. macha allah amut xaj amul amul amut amut féewaloo. waaye mottalante rek lay doon mhm. loolu dafay feeñ ci commission yëpp bu dee ci finance boo demee da nga fay fekk loolu mhm. ndax euh, ci biir euh, diaspora bi wala boog relation extérieure mhm. euh, dañ leen a bokk ci li ñu leen di sas muy ñuy gëstu di wër ay partenaires ñoo xam ne dañuy jàppalante ak ñoom loolu nag ñi jiitu mooy murit yi ak massification ba yëf yi gën a yaatu mhm. waaye fu ñu gisee dara lu baax loo xam ne eh, ci àdduna bi dañ koy soxla mhm. ñu fexe ko indi Touba mhm. te loola fu mel ni Italie eh, ñu di leen ci sant bu baax a baax ku mel ni Baye Serigne Diop ak ku mel ni Serigne Mouhamadou Ali lu mel ni ay oto sapeur pompier yi eh, indi nañ ci ay yoon yoon ambulance indi nañ ko fi dafa nekk ni am na oto sapeur yoo xam ne bi mu yegsee yàggut mhm. am na it ambulance yoo xam ne ña nga fa di ko waaj a dugal pour mu war a ñëw mhm. loolu nag doon loo xam ne it euh, euh, ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax di ko di ko di leen wax ne coono yi ñu ciy mhm. am nañ ko te Serigne Khadim Thiam mi mhm. eh, am na ci lool expertise ah, expérience macha allah mhm. te it bari ci bagage yoo xam ne bu daal ci moom lay jaar mhm. eh, bu fekkente ne jaarut ci moom it yoon yañ koy jaarale dana ca dana ca taxaw parce ba nga xam ne dina génn loolu nag kon eh, li li ci li ñuy soññee rek mooy bennoo ndax kenn ku ci nekk la nga ca yor nga gëm rek ne lii ab tabax la mhm. fi may liggéeyee ñu gis maa ñu ñàkk maa gis mhm. li am solo daal mooy bu ma fi jógee dinañ xam ne fii dara jóg na fi te ma fi taxawee it xam ne fii kat daraa ngi fi tabax bi ba léegi mi ngi mi ngi mi ngi tudd tabax tabax nag danañ ci tudd ciment tudd ca fer tudd ca yooyu yëpp mhm. yooyu yëpp nag benn bu ci manqué bu fekkee ne euh, pentir nga ko ba mu rafetit boo doxee tuuti di nga gis ne lii kat Euh, manqué na ci kon bu boobaa nekk gi ngay nekk ci biir ñàkk gañ lay ñàkk tudd mhm. tekki wut ne danga nga caa euh, amut ab wàccuwaay mhm, mhm, da nga ciy mel ni xorom rek ci biir aw ñam euh, léeg-léeg xel man na cee bañ a demandoo waaye sëñ Abdou yi daan na wax ne yàlla nañ ko yàlla fayal te taas ñu ci barkeem saa yu ci xel yëpp demandee rek ñam ba yàqu na oh, dëgg la dafa ëpp wala mu yées kon nag nu gën a soññ rek gën am pastef te it la sëñ Euh, Mountakha waxoon ci ne bu mu laal suuf. bu suuf te loola ma ngi ko jëlee woon ci discours ba nga xam ne mooy ba ñuy teg xeeru euh, université ba. Uh-huh. Euh, téeméeri million yi ñu njëkk a joxe. Uh-huh. ba muy tontu ca biir tontu la ca la waxee ne bu mu laal suuf. macha allah kon loola nag kon nañ ko jël rek. mu uh-huh. bañ a laal suuf. incha allah di santaar bu baax a baax fu mel ni états uni ndax demoon nañ fa ci fani gi. fekk fa. jëwriñi continent ba muy soxna dikkel uh-huh. eh, di ci jàmbaar moom it di koo xam ne day nekk ci biir group yi di ci liggéey liggéey yu ama am solo uh-huh. ak ci fànn yëpp uh-huh. fekk fa it sëriñ eh, soin bu sekk mi jiite États-Unis d'Amérique ak sëriñ Masey Ndiir ku mel ni Serigne Ilimane Touré. Mm-hmm. ak soxnaam ak soxna maam Assa Mbacke moom Cheikh Abdoulahi. Mm-hmm. moom it mu nekk ca Cincinnati. Mm-hmm. di jàppalante ci liggéeyu Touba ci kanam bi. ak mboolem kilifa ya nga xam ne ñoo fa nekk yëpp. Euh, ku mel Serigne Alioune Cissé. ca Minnesota Serigne Mohamadou Koné ca. Euh, Bamba Kone ca euh, North na uh-huh. ak bokk yi nga xam ne nii yëpp rek xam naa ku toog di ko doon ko lim ah, dana danga ah, fi da nga fi mën a yàgg waaye bu ñu tuddee noonu rek ñu yóbbaale mbooleem bokk ye uh-huh. man Serigne Bounama Diop uh-huh. Serigne Moustapha Diop ak bokk yooyu yëpp di rafetlu bu baax a baax nag liggéey bi di santaat bu baax bokk yi nga xam ne ñoo ñëw doon jël si lii muy technicien yi nga xam ne ku ko gis rek danga euh, Euh, da nga da nga da nga ci am euh, yéeg-yéeg boo xam ne day kawe waaye ñoom kenn du leen gis ndax ci ginnaaw caméra yi la ñuy nekk ak ci technique bi mm-hmm. waaye di ko tegaat nag ki loxo Serigne Modou juuf mm-hmm. nga xam ne mooy yore euh, communication wu diaspora bi mm-hmm. moom ak soxna Maguette Ngiraan ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañu ko seqal di tàggatoo fii di wàcce kàddu gi <coughs> di ñaan Chamul taxa yàgg fi lool te wér ak suñu kilifa yi nga xam ne ñoo yore nuuru daaray ni asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala kon mbokk yi lii moo nekkoon suñu euh, plateau euh, bi ñu doon amal jëmee woon ko ci euh, commission sociale ak commission relation extérieure ñu ngi jaajëfal sëñ Abo Bousso sëñ Mohamed Seck sëñ Khadim Thian sëñ Moutala Mbacke moom sëñ Abdoul Fattah waaye sëñ Cheikhouna Mbacke sëñ Cheikhouna Lo mi nga xam ne moo jiite commission relation extérieure <coughs> di jaajëfal baax a baax réalisateurs yi. sëñ Maam Mor Mbay ak soxna Fatou Cissé waa di jaajëfal bu baax a baax euh, sëñ Madiama Mbay mi nga xam ne mooy euh, directeur bu euh, Bichri TV waaye di jaajëfal sëñ Modou Mbay Thiam bu Touba Monde bi sëñ Modou Diouf mi jiite communication jaajëfal Moussa Mbay mi nga xam ne moo doon assisté li nga xam ne moom mooy jotaay bi jaajëfal baax a baax sëñ Babacar Lo programme ku ne xam na ne jotaay bu mel ni su amee am na ay taxawaay kon fii la ñuy tënk suñu kàddu jox leen benn di daje ci beneen émission wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu الدنيا بجاي خير من أبا وجل إلهي مسكني بابات مثل اسمها بجاي خير من ابا إلى الكتاب والحديث انصرفا